وسلم على الهادي البشير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ۖ آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما mbokk yi aay yi mu ngi nekk ci jeexintalug suurat al-Fath sunu borom yàlla di ñu fa nettali ab jaar-jaar ñu jëlaat laaj yépp daal koy delloowaat euh, sunu cheikh Mor Kébé muy sulxul xudaybiya mooy lan fan la xewee ci diggante ñan la xewee lan lañu dëppoo woon yan njëriñ yan njàngalin la ñuy jàngee ci li nga xamante ne moom mooy xew-xew woowu ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala yal na yàlla leeral euh, li Cheikh Mor bëgg leeralal ñu su ko defee ñu daal di koy dégg daal di koy jëriñu kon sunu waxtaan mooy ay mbind ak njàngalin yi ñu war a jëlee ci sulxul xudaybiya incha allah dinañu xam lu aju ci tomb yooyu yëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim allahuma allimna ma yanfauna wanfana bima allamtana wa zidna ilma mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di ziar bu baax te leen ndokkeel ci koor gi di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñu nangul leen yaa am tamit ci jataay bi ñaan suñu boroom subhanahu wa taala mu def ko jataay bu barkeel bokk ci jataay yi nga xam ni yàlla day wàcce ci ñoom dal ak yërmande yàlla da leen di jéggal seeni bàkkaar yàlla nañ ko yàlla defal suñu jataay bi lii Cheikh Mouhamad wax ak aaya yi mu fi jàng léegi jazahullahu xayran mu nekk loo xamante ni bi lu àgg ci suñuy xol la ak njàng mu neex bi mu ko jàng ci loolu lañuy ñuy waxtaanee mën nga wax li ñuy waxtaanee mooy li sabab suratul fatx muy benn xew-xew boo xam ne dafa xew ci diggante yonantu bi alayhi salaatu wasalaam ak ñi nga xamante ne ñooy kàngam yi nekkoon màkka mu nekkoon benn jaamaarlo boo xam ne dañ ci nekkoon mais à distance donte sorente nañ ndax yonantu bi alayhi salaatu wasalaam génn na nekkatul màkka donte gënalu leen woon ndax liñ bëggoon mooy téye ko waaye yàlla defal ko mu génn dem madina toog fa ak ñam fa nekkoonoon di leen yar di leen jàngal diine ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon màkka yàgg di bàyyi xel installation boobu mu dem installé wu ko Madina ndax dañ jàpp ne dafay constituer menace ci ñoom ci ne bis dina mës a ñëw mu dellusiwaat te soo moytuwul delluseem du nekk luy gën ci ñoom du nekk lu leen di neex ñu doon fexe fu ñu toll ngir nuñ ko gàllankoore ci liggéey bi mu liggéey Madina bi ci mujj mooy ghazwatul ahzab bi nga xamante ni dem nañ comploter ñoog yahud yi dajale lu ñu mën a dajale ci araab yi ay mbooloo yu dul jeex takk ñu fekk ko Madina encercler ko pour ne dañ leen di faagaagal benn yoon yàlla subhanahu wa taala dimbali jullit yi ba nga xamante ni mucc nañ ci pexe boobu nga xamante ni ñoom fexeloon nañ leen keroog bi yàlla defee ñu jóge fa yonentu bi alayhi salatu daf ne al aana naxzuhum lii mooy seen dernière fois bu ñu ñuy attaqué ñoom dootuñu attaqué ñoom ñoo leen di attaqué léegi ndax pexe yi ñu mënoon yépp def nañ ko léegi jeexal nañ bii moo lu seen dernière carte boo xam ne lancé nañ ko ci loolu la soobee yàlla subhanahu wa ci juróom benneelu at ci atu jullit ñi yàlla won yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci li ñu wax ci ay riwaayaat donte am na ci ñenn ñu wax ci siira ñoo xam ne xëy na defuñu loolu muy sabab génn bi yonent bi alayhi salatu wasallam génn madina dem màkka mais li sabab li ñuy waxtaanee mooy génn bu yonent bi alayhi salatu wasallam génn madina ànd ak jullit ñi ne leen dañuy dem umra ji mu nekk loo xam ne lu mën a xëy na jaaxal nit ki ndax digganteem ak waa màkka kuffaaru Quraysh ku xam na ko nooneel gi fi nekk naka la mu ne toog ba mu yàgg mu ne jullit ñi takk leen ñu dem umra ji bi mu koy wax tamit jël na ay matuwaayam ndax wax na arab yi nga xam ne ñoo waroon Madina ne leen nañ ñëw ànd ak moom pour dooleel ko pour yokk ko mbooloo waaye ñooñu dañoo yéex ci waaj bi ak ci génn bi mu dimbali ko yàlla ñi fa nekkoon mu ànd ak ñoom ñu nekk junni ak ñeenti téeméer wala xëy na lu ko jege muy 1400 wala 1500 am na ñu wax ne 1300. ci diggante riwaayaat yi nga xamante ni moo ñoo jóge ci saxaaba yi ku mel ne alimaamu nawawi dafa wax ne loolu yëpp mënees na ko boole comme na ko ibnu xajar waxee ci ne xëy na 1400 yu teg la waaye niñ ko wàññee ak niñ ko waxee moo bokkul bi nga xamante ni génn nañ ñu jubali màkka nee nañ sabab bi waral ñu génn mooy lim jàng fii léegi laqad sadaqa allahu rasulahu ruya bilxaq la tadxulunna almasjid alxarama insha allahu aminin muxalliqina ruusakum wa muqassirina la taxaafuun fa alima ma lam taalamu fa jaala min duni dalika fatxan qariba mooy suñu borom subhanahu wa taala lu mu wan bi alayhi salatu wasalaam ne mook jullit ñi danañ ànd dem dugg màkka ci loo xam ne du nekk xeex waaye ci jàmm aminin ci jàmm lay nekk ci dal lay nekk bu ko defee ñuy def seen jaamu yàlla ba buñ fay duggaat dañuy nekk ni dañuy wat seen bopp walla bokk ci dugg boobu ñu dugg dinañ fa wat seen bopp aminin ji xàll ci at duxul mais muqassirina ak muxalliqin muy wàññi seen karaw ak wat seen karaw gi loolu mi ngi am ginnaaw bu ñu duggee ba noppi ndax bu ñu defee omra après la ñuy soog a watu loolu bi ko yonente bi alayhi salatu wasallam gisee daf ko wax saxaaba yi ne leen yàlla wan na ko ko daal di jub nag jëm ci sabab yu tax loolu réalisé wu loolu mu gis sabab bi mooy lan mooy ànd ak saxaaba yi dem ndax yàlla woon na ko mu nekk ne suñu borom subhanahu wa am na lu mu ko won waaye xamalu ko loolu kañ lay am moom tamit bi mu waxee saxaaba yi loolu waxu leen ci biir waxam ne leen loolu ren lay am wala du am ren daf ne leen rek gis naa ko ñu yaakaar ne bu ñu demee directement rek day yomb ci ñoom loolu réaliser wu comme ñu ko gisee loolu nekk ci seeni i xol nekk ci seen xel ndax yàgg nañ bëgg defaat lu mel noonu ndax namm nañ néegu yàlla bi namm nañ néegu yàlla bi namm nañ màkka ndax yéefari ñu dox seen seen diggante ak màkka mu ànd ak jullit ñi daal di takk ñi daal di jëbali màkka bu ñu ñëwee ba dul fa bi ñu génnee madina ci benn bërëb bu ñu tuddee dul fa ñu wàcc fa yonente bi alayhi salaam julli fa tisbaar mook saxaaba yi ñu daal di ihram foofu mooy ñu armale foofu ngir seen umra bi ñu war a umra daal di jëm màkka ñu ci mbooloo mi dañoo armaloon yonent bi alayhi salaam yabal abu qataada ne ko na dem dajale ji ay azaka yoo xam ne war na ko dem jëli ci jullit ni daal di leen di daq ci yoon bi abu qataada génn ci mission boobu moom armalul mooy deful umra mu génn ànd ak benn mbooloo dem doxi ci mission boobu yonent bi alayhi salaatu salaam génn jëm màkka kon bu cheikh Mouhamad waxee fii léegi ne li ñuy wax mu laxtaanee mooy alxudaybiya muy benn bërëb bu tudd xudaybiya boo xamante ni ci wetu màkka la nekk mais du ci màkka ci peggu màkka la nekk dese na sax nekk ci yoonu madina ndax dafa xaw a jàdd tuuti te jàdd bi li ko waral dinañ ko waxtaanee lan moo ñu jëlee ci umra bu mu war a umra ji ànd ak saxaaba yi ginnaaw bi mujj gi ñuy wax waxi xazwa bu ko tuddee xazwatu alxudaybiya ndax xare lañ ko tuddee donte jullit ñi bocc wuñ fa ay jaasi jaamaarloo ak seeni noonu mais xare lañ koy tuddee comme nu mu ñëwee ci riwaayaat yi nga xamante ne bi ñoom ñoo koy soloo anas ibn malik dafa lamma rajana min xazwati alxudaybiya wa qad xiila baynana wa bayna nusukina qaala fa naxnu bayna alxuzni walkaaba ñoom saxaaba bu ñu daan wax ci alxudaybiya dañ daan jëfandikoo xeex muy xare baatu xare lañ daan jëfandikoo ànd bi ànd ak yonente bi di dem bi ñuy dem waajaluñu woon seen bopp ngir xare mais jël nañ seen i matuwaay ndax xam nañ ni situation bi mën na changé ñu jël seen i arme yoo xam ni du ay arme xeex mais mooy ngànnaay yi nga xam ne daan nañ ko yor di war ak moom ci seen i waruwaay muy seeni jaas yoo xam ne day nekk ci biir mbar mi moom lañ yoroon kon xëy na desoon nañu préparé wu pour xeex kon loolu moom moo nekkoon jubluwaay bi dëgg-dëgg bi yonent bi alayhi salatu salaam génnee jëm <coughs> ngeen jégal ma nag ci sëqat yi bi mu génnee alayhi salatu salaam jëm fi nga xamante ne bi moom mooy euh, màkka ànd ak mbooloo mi mu àndal dafa dem ba ci yoon bi mu wàcc ci benn bërëb bu tudd usfaan muy gadirul ashtaat bi mu wàccee usfaan mu toog fa campe fa dal fa abu qataada daf ko fa fekk bi ko fa abu qataada fekkee yonentu bi alayhi salatu wasalaam digal na ko fa jox na ko fa benn mission mission bi mu ko jox mooy daf ko wax ne ko na dem repérer ko xoolal ko déplacement yi nga xamante ni waa Quraysh dañ koy déplacé wu ci zone bi ci secteur bi muy def li ñu tuddee repérage muy dafa ànd ak benn commando pour dem xool ndax am na ñu war a mën a ñëw attaquer leen fi ñu nekk wala déet wala am na ay déplacement de troupes ay mouvement de troupes lañ koy tuddee ndax fi mu nekk dugg nañ ci wàllu stratégie de guerre lañ dugg ndax comme dañ ne dañuy jàng xew-xew bi jël ci ay leçons bokk na ci stratégie wu yonentu bi alayhi salatu salaam mooy mu daal di jël Abu Qatada confier ko benn mission jël ku tudd. Bishr wala Busr ibnu Safwan mu yebal ko en tant que espion pour mu dem Makka espionnel ko waa Makka loolu ci yoon bi la ko def <coughs> ndax bëgg na xam ndax waa Makka yëg nañ ne mi ngi ñëw wala déet ndax bokkoon na ci ay stratégie am alayhi salaatu salaam bu musaan génn bëgg dem fenn te xeex di ko fa yóbbu daf daan euh, def diversion la daan def mooy day jël beneen yoon bu bokkal ak yoon bi mu bëgg a jëm kaana ida araada an yaxzuwa gazwatan warra bi gayriha bu musaan di génn daawul génn madina jëm ci direction bi nga xam ne fa la jëm day changer direction def diversion pour ku koy espionner mu nax la loolu lër la ci wàllu stratégie waaye bi mu jógee fi nga xamante ne bi mooy dul fa jëm màkka ci yoon bi mu yebal busr ibnu safwaan ne ko demal kooku dem dugg màkka tawaaf ci kaaba gi wër xool gis li nga xamante ne bii moom moo fa nekk ci ay wax mu dégg ñuy wax waxu génn yonente bi alayhi salatu wasalaam ay kàngaam ci kàngaami Quraysh yi commencé ñoom di takk ak xataraayu di préparer naan bu ñëwee ñun la fiy fekk duñ ko bàyyi mu dugg ah du fi dugg dañu déshonoré bu ñëwee fii dinañ xeex ak moom bu ñëwee dinañ def nangam ak sàngam mu dégg loolu yépp génn ndànk rocceeku ñëw dabat yonente bi alayhi salatu wasalaam ci usfaan bi mu ñëwee Usfaan yonente bi alayhi salatu wasallam laaj ko mu wax ko li moo xamante ni gis na ko ci li mu fekk biir màkka ñu koy wax ci mbiram mu daal di tenir loolu en compte bi nga xamante ni jóge nañ foofu ci Usfaan ci campé boobu mu campé woon foofu te Abu Qatada jot fa dox ay mission ba sax ci biir mission boobu euh, dafa ànd ak ñi mu àndaloon commando bi mu àndaloon ñoom ñu nekk ay muhrimun yu armal di aj di umra moom armalul mu toog di defar dàllam am ay euh, mbaam yoo xam ne mbaam àll la ndax mbaam àll yi nekk ci àll bi daggan naa lekk nekkul lu aram mbaamu kër yi ñoom ñoo mbaam sëf yi nekk ci kër yi ñoom ñoo aram am benn groupe mbaam yi nga xam ne mooy mbaamu àll yi yu sauvage yi di dox di dem moom gisu ko mi ngi sëgg fi mu sëgg ñi nga xam ne ñoom la nekkal nanguwuñ ko ko wan ndax bañ mu rëbb ko fekk ne ñoom ñoo ko ko wan ndax ñoom dañoo armal dafa aram ci ñoom ñuy rëbb dafa bokk ci liñ leen di tere rëbb wala dimbali kuy rëbb mu siggi seen leen daal di ne bëreet jël fasam wax kenn ne ko jox ma sama xeej bi kooku ne ko man koy sama yoon nekku ci dama armal mu ne keneen jox ma sama yat bi dama ko fàtte pour la bali dabi ji leen kooku ne ko man tam sama yoon nekku ci mu def ay pexeem fexe ba yéeg dàq ji leen ba jàpp ci benn bi mu ko rayee sax indi ko dafa leen wax ñu jàppale ko ñu ne ko ñu suñu yoon newu ci après mu daal di jël yàpp bi ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalam laaj ko yonente bi alayhi salatu laaj ñi mu àndaloon ndax kenn ci ñoom wan na ko mbaam mi ne ko demal jàpp ko ñu ne ko déedéet ndax bi mu dem di ko jàpp dimbali ngeen ko ñu ne ko déedéet mu daal di wax ne koon mën ngeen cee lekk moom ci boppam alayhi salatu dafa armaloon waaye lekk na ci ñu jële foofu benn masala wu fiq mooy koo xam ne dafa armal dañ koo tere ne ko bu mu rëbb waaye bu nit rëbbee rëbb boo xam ne yoonam newu ci jël ci jox ko dagan na ci moom mais loolu mooy condition bi foofu noonu yonente bi alayhi salatu wasalaam bi nga xamante ni gis na ni am na ay mouvement yu commencé di am ci ne Khalid ibn Walid takk na ànd ak benn commando commencé di jéem a fexe dal ci kaw jullit ñi am na ay mbir yu fa xew ndax dañoo julli tisbaar Khalid ibn Walid avant muy songu nit dalay jàng jàng sa mbooloo xam lan mooy say faay ak say faiblesse bi mu gisee julli ñi di julli tisbaar mu jàng leen nit ñi dañuy concentré wu ci seen julli ba dañuy mel ne ku fi nekkatul léegi comme nii lañuy ñuy jullee naa leen xaar ba ñuy julli tàkkusaan ma ma profitoo ci loolu dal ci seen kaw ma massacré leen bi tàkkusaan jotee mbiru suñu borom yonent bi alayhi salaatu wa salaam sàppe jullit ñi ñaari sàppe taxaw ci seen kanam daal di kàbbar ñëpp a kàbbar Xaalid mi ngi préparé wu di xaar li muy xaar rek mooy ñu teg seen jéey ci suuf ba mu ñëw fekk leen fa massacré leen bi mu rukkoowee ñoom ñëpp ñu rukkoo mu siggi ñoom ñëpp ñu siggi mu sujjóot première sàppe bi sujjóot deuxième sàppe bi taxaw yore seen i jaasi Xaalid ne problème am na lii sóoraale ko woon taxaw yore seen i jaasi bàyyi ñi ci kanam ñu julleek yonente bi alayhi salatu wasalaam ba julli bi seen julli jeex seen ñaareelu ràkka ñoo ñu dellu ginnaaw ñu nekkoon ci kanam ñëw ci ci ci ginnaaw ñëw ci kanam wala bokk ñooñu continuer resté fi ñu reste ndax ñaari bon xale salaatul xawfu xëy na li ko borom xam-xam mi limal ci riwaayaat yi nga xam ne ñoo ci ñëw dem na ba jege lu mat fukki façon jege na ko xëy na dina mat ay 7 ba 6 ba ba 8 jëm 9 ci ay façon yoo xam ne dañ ko koy jullee yenn yi ñenn dañ koy contesté waaye bëri na ay façon yoo xam ne moom la ko yonente bi alayhi salatu wasallam daan jullee fii stratégiquement ni mu jullee ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo nekk ci ginnaaw rukk su jootuñu rukkoo nañ mais su jootuñu dañu xaar ba ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci première sàppa bi pare ñooñu dañuy reculer ñi nekkoon ci ginnaaw ñëw ci kanam bu ko defee yonente bi alayhi salatu wasallam àggaleeg ñoom seen julli ba nga xam ne dara desul lu dul sëlmal ñoom ñëpp ñu toog mu sëlmal ànd ak ñoom ci loolu la piège bi nga xamante ni Xaalid euh, bëggoon na leen ko gasal daal di naax saay yonente bi alayhi gis ne comme yoon bi am na problème ndax day bañ day bañ Xaalid tànte leen tendre leen lu tuddee embuscade embuscade mooy échoué na ci lim njëkkoon bëgg a dal seen kaw ci heure julli mais bàyyiwul dafa nar a dem jiitu leen parce que moom commando bu mu yor bu oyof la ba ñu dem ba àgg ci benn xëy na bërëb boo xamante ni stratégiquement jullit ñi dañuy nekk ci point de faibles mu ñëw dal seen kaw bi yonente bi alayhi salatu xamee loolu la ne ñi mu àndaloon kan ci yéen moo mën a xam yoon bi ba jëlal ñu yoon boo xamante ni muy faniyatul euh, xandal la leen wax faniyatul xandal jël yoon boo xamante ni yoon bu compliqué la yoon bu difficile la boo xam ne yoon bu metti la mais kan moo ñu fa mën a jaarale ba ñu teggi yoon wi nga xamante ni mooy yoon bi ñu waroon a jaar ndax buñ ñu gisatul dootuñu am ci ñun pexe foofu tamit yonente bi alayhi salatu salaam nekk dëgg-dëgg dirigeant nekk leader boo xam ne bu mat la ndax bi mu gisee ne menace mi ngi taxaw ci kanamu ñi nga xam ne ñoom la àndal dafa soppi li nga xam ne mooy li mu jëloon comme décision ci dem Màkka mooy dafa gis ne continuer ci yoon bi wóorul ndax buñ ci continuer di ci dox ni ak mbooloo mi ñu àndal dal ci seen kaw bett leen dafay yomb yàlla musal na leen ci ci heure julli mais ba léegi noon bi bàyyiwul mu daal di laaj saxaaba yi ci loolu la amee ci ñoom ñoo xamante ni xam nañ yoon wi nga xamante ni bii moom moo leen di jaa jaarale foofu ñu daal di jël yoon woowu daj ci yoon bi lu méttee méttee métti mais ñu bàyyi yoon wi nga xamante ni moo doon yoon bu yomb bi ci loolu lañ génnee ci yoon woowu di dox di xuus di dox di xuus ba génnee ji Xudaybiya lii moo leen yóbbu Xudaybiya lii moom moo yóbbu yonente bi alayhi salatu salaam ak saxaaba yi mu àndal Xudaybiya saxaabi bi nga xamante ne bi moom moo leen yóbbu xëy na euh, du ma mën euh, di taxaw à chaque fois ci tur yi kenn ku ci nekk ma wax li nga xamante ne bi moom la def euh, ndax dinañu jëlal temps tuuti mais bon xaw a gaawal tuuti bi nga xamante ne yonente bi alayhi salatu wasallam génn na Xudaybiya mu ñëw foofu nekk benn bërëb boo xamante ni ndox moo fa nekk nee nañ benn dëkk su ndaw la waaye daal jamono jooju ndox moo fa nekkoon ndox mi bariwul bi saxaaba yi ñëwee ñu daal di wàcc ci bërëb boobu ndax dañuy faral di taamu di dal ci bërëb boo xam dafa am ndox ñu daal di songu ndox ma naan ko ndox ma daal di jeex ndox ma fa nekkoon bariwul ñu daal di koy song naan ko ak seen gàtt yi seen euh, waruwaay yi ñu yoroon ndox mi daal di jeex ñu ñëw ci yonente bi alayhi salaam di ko jàmbat ne ko ndox mi jeex na mu jël benn ci fitt yi mu yoroon fitt yi mu yoroon mu jël ci benn daal di ciy tifli jox ko kenn ci saxaaba yi ne ko wàccal nga jam ko ci ndox mi fi ndox mi nekkoon kooku wàcc daal di ko fay jam ndox mi tàmbaliwaat di ball ndox mi tàmbaliwaat di ball ba lépp lu ñu soxla woon ci ndox ñu daal di koy amaat nekk benn kéemtaan bu yàlla subhanahu wa taala dafay yonente bi alayhi salatu wasalaam ci jotaay boobu ci loolu la saxaaba yi installé woo ci bërëb boobu bi nga xamante ne installé woo nañ ci bërëb boobu nag léegi lan moo des li des mooy Quraysh léegi yëg na ne yonente bi alayhi salatu wasalaam génn na mi ngi ñëw mu dem dajale arab yi ko wër yépp <coughs> ne leen Muhammad ñun buñ ko waxee ne sallallahu alayhi wa ñoom ñu wax ne Muhammad dajale na ay nit mi ngi ñëw dafa bëgg a dal suñu kaw dafa bëgg a jalgati néegu yàlla bi li nga xam ne mooy ay wormaam ñu jëfandikoo propagande boobu stratégie de propagande ndax loolu naka jëkk moom la àdduna di doxe bu ñu bëggee éliminer sab sab noon bokk na ci stratégie yi gën a yomb yi gën a gaaw mooy nga def propagande contre moom yàq image am dem waxal ko ëpp ko làmmiñ waxal ko ci nit ñi loo xam ne amul bu ko defee nit ñi jàppal ko loolu mere ko pour ñëw jàppale la ci moom noonu la noonu la waa Quraysh def mais loolu lu koy faj mooy nga bañ a jël sa ñu def ko sa poche yonent bi alayhi salaatu salaam tamit joué waat beneen jeu ci seen kaw ñoom wan leen ne moo leen gën a nekk stratège sallallahu alayhi wa sallam mooy bàyyiwul situation bi noonu muy joué ci faveur Quraysh ndax bu ko defee gars yi dañ koy jàppale sans condition te message am du àgg ci ñoom waaye mu daal di gaawantu jël. koo xamante ni ci giiru xuzaa la bokk nga xam ne ñoo ñu am doole lañ ci araab yi te nekk ñu jege yonente bi alayhi salatu salaam daan ko jàppale am benn loyauté envers yonente bi alayhi salatu salaam muy xiraas ibnu umayya alxizaai yonente bi alayhi salatu salaam délégué ko gaaw bi mu agsee ba installé wu fi nga xam ne mooy xudaybiya xaarul Quraysh di génn di ko fa fekk ndax bu ñu ko fa génnoon fekk ko fa ak mbooloo yu njor situation bi day da koy dépassé mais dafa gaawantu yónni benn émissaire kooku dem bi kooku demee rek dugg màkk gars yi songandoo ko bëgg ko daal di patam-patame lu ngeen fiy def waroo leen fay dugg coow li commencé bëgg ñi naan dóor leen ñi naan def leen lii xam nga rek chaque fois li ñu naan ful muy mbooloo du ñu déglu mais ñi nga xam ni ñoom ñoo jóge ci àll bi nekk ay mbooloo yoo xam ne waa Quraysh ñoo leen wax kaay leen ngeen dimbali ñu ngir ñu sàmm néegu yàlla bi ndax Muhammad dafa ñëw ngir jalgati ay warwaam ñooñu ñoo ne mais daf leen dànk yeneen a bëgg a patam patamee waa ji mais bàyyi leen ko mu wax lan lañ ko yabal lan moo ko fi indi bu dul woon ñooñu Quraysh nanguwuñu woon mu wax ndax xam nañ ni bu waxee du nekk seen intérêt loolu mooy censure bi ñuy gis léegi ci jamono mooy dama lay waxal loo xamante ni amul. yàq sa der ba pare fexe ba tëj sa gémmiñ pour nga bañ a leeral mbir mi nu mu demee muy censuré la loolu lañ doon jéem ak yonente bi alayhi salatu wasalaam mais réussirul ci mbiru suñu borom xiraaj ibnu umayya alxuzaayi daal di wax ne leen yonent ne leen muhammad alayhi salatu wasalaam moo ma yebal nee na ñëwul pour xeex ñëwul pour jàppante dafa ñëw ngir umra li mu bëgg mooy ngeen bàyyi ko mu ñëw ci néegu yàlla bi màggal ko jaamu fi yàlla delluwaat bi gaa yi déggee loolu ne ah suñu gaa yi waxuñu woon lii de kii ndakate ñëwul fii pour xeex au contraire moom dafa ñëw sax pour màggal néegu yàlla bi ci la ay problème commencé di am ci seen biir mu créer li ñu tuddee zizani muy ay jiixi jaaxa ci seen biir seen digganteeg ñi leen doon dimbali si mu leer ne ndakate lañ leen waxoon comme loo xamante ni moom te tegoon seen loxo ngir convaincre leen ko pour ñu ñëw jàppale leen daal dinay tàmbali di ruus kooku ñu ne ko yow gaawal nga génn fii nga abal ñu nga dem mu delsi ci yonentu bi alayhi salatu wasalaam waaye bi muy delsi ñëwul moom kase ndax dafa ànd ak bu Budayl ibn Warqa Budayl ibn Warqa moom tamit Xuzaa'i la bi mu gisee mbokkam boobu di Xiraash ibn Umayya ñëw wax loolu moom dafa génn ànd ak benn groupe boo xam ne ci même giir bi ki yab ci yonente bi alayhi salaam yabal la bokk mu ne ko booy dem nañu ànd ma lijjanti mbir mi nga wax nii loolu nekkaat beneen mbir bu doy waar boo xam ne ñooñu buñ ñëwee ànd ak ki yonente bi alayhi salaatu salaam yabaloon dañoo ñëw ci yonente bi alayhi salaatu salaam ne ko ñun kat dañoo nekk màkka ñu ne ñu nàngam ak nangam moo la fi indi yonente bi alayhi salaatu salaam wax ak bu Budayl ibnu Warqa expliqué ko liy jubluwaayam ne ko xeex taxuma fay ñëw dama ñëw ngir jaamu si yàlla dama ñëw ngir umra samay gàtt ñi ngi nii samay gëléem yi ma nar a rey ca kaaba ga mi ngi nii gënuñ maa fonk néegu yàlla bi léegi propagande Quraysh bi commencé di di di li ñu doon def ci manipulation yi commencé di yàqu parce que émissaire am moo demoon wax leen xëy na am na ñu mu doyul ci ñoom ba bu dayil moom daal di ñëw déglul boppam ak mbooloo mi mu àndal ne ko Quraysh dañ ña nga fa ñoom di tëb di dal ak seen i mbooloo ne dañuy takk ñëw dal sa kaw yonent bi alayhi salatu salaam di mel ne sax kuy tourner situation bi moom lañu doon jiiñ violence léegi moom muy wëlbatiku di leeral ne violence bi dëgg-dëgg ci Quraysh la jóge mu ne cay Quraysh kañ lañuy dal kañ lañuy bàyyi xeex topp nañu xeex bi ba xeex bi jeexal na leen takk bu dee man mii moo tax ñuy tëb di dal teñ maa bàyyeek nit ñi seetaan maak nit ñi ba fan la yàlla di mujjeeg samay mbir fan la samay mbir di mujjeeg nit ñi te ñu bàyyi xeex ak fitna ji ñuy yëkkati xam nga loolu bu ko dee wax koo xam ne ci Quraysh la jóge ñëw di déglu si moom di xool ba xam yonente bi alayhi salaam dafay dem xeexi ji wala xeexi jiwul yonente bi alayhi salaam wëlbatiku di yedd Quraysh ci seen fitna jooju ñuy yëkkati bëgg koo jël ci teg ci kawam xamal kooku ne ko man fitna taxumaa jóg kooku dafa delluwaat ne leen ah man de wax dëgg yàlla la ma fekk fële ñee moom xeex taxu leen a jóg jaamu yàlla moo leen tax a jóg jaamu yàlla moo leen indi xaw ma nag yéen lu ngeen nar waaye kii ma gis ak mbooloo mi àndal xeex si wul indiwul fitna jaamu yàlla moo ko indi nga gis stratégie boobu yonent bi alayhi salatu salaam employé ci loolu la yabalaatee Ousmane ndax ki mu naroon yabal sax mooy Omar ibn al-Khattab Omar ne ko man dama am tàngoor wu nekk ci man yenn yi bu ñu ma ko provoqué yenn yi bu ñu ma ko defee dama fay jàppante ak ñoom beneen bi mooy. am naa ak ñoom noonoo gu toll ne amul ku ma fay protéger su ma fa demoon ñu ma fay def dara kenn du ma protéger ndax ñoom ñëpp samay noon lañ amatuma ak ñoom benn relation ndax sama sama sama passé ak ñoom moo ko waral kon yabalal Ousmane ndax ay mbokkam ña nga fa di famille bu am doole boo xam ne bu fa demee koo ko fay jéem a néewal doole famille dinañ jóg jàpp ci ndax arab yi dafa am benn solidarité bu nekkoon seen biir boo xam ne même sax bu dee seen mbokk jullit la ñoom du ñu ay jullit du ñu nangu ku koy néewal doole ci loolu la yonente bi alayhi salatu salaam yebale Ousmane Ousmane daal di dem bi Ousmane demee dem ci kàngaami yéefar yi kenn ku ci nekk mu wax la li ko yonente bi alayhi salatu salaam wax dañ ne ko waa léegi yow mën ngaa dem nga tawaaf te nga dem te nga dellu mais moom du fi teg tànkam du fi duggu ndax du ñu nangu mukk mu fiy duggee nii mel ne ku ku ñu weñ ku weñ suñu loxo di ñu ñàkkaloo fayda ci kanamu àdduna bi waaw ndax li muy def nii genre weñ loxo la boo xam ni bu ko defee ñépp dañ naan ñëw na fi dugg na fi mu neex ñu mu naqariñu loolu daf ñuy ñàkkaloo fayda kon du fi dugg na delluwaat Ousmane toog fa yéex a génn ñoom ñu yabal ñoom seeni émissaire ñu yabal seeni émissaire émissaires yi njabal yabal ki ci njëkk mooy Urwatu bi Mas'ud al-Thaqafi moom moo toog ci jataay dégg ñuy wax coow li bari mu ne leen léegi man lu ma leen di proposer mooy bàyyi leen ma man ma dem su ma demee man ma wax ak moom xool mbir mi ba xam nu mu demee orwa ñu ne ko ah, waa comme noonu la demal yow bu fekkee jëlee sa responsabilité nga dem bu dee mën nga dem orwa ibn Mas'ud daal di jóg dem ànd ak mbooloo bi mu demee ngir wax ak yonante bi alayhi salaatu wasalaam yonante bi alayhi salaatu wasalaam toog ak moom expliqué ko situation bi yépp ni mu demee leeral ko lépp am na sax ñu wax ne orwa dafa duggee ci lislaam ci ja ci jataay boobu am nañu wax ne islaamu orwa après la la tuub dugg ci lislaam mais orwa ñëw na toog ak yonente bi alayhi salatu salaam bi mu ñëwee toog al mugirat ibnu shuba dafa jóg tiim yonente bi alayhi salatu salaam yore benn jaaseem tiim ko loolu nekk loo xam ni daawuñ ko woon di def ñoom saxaaba yi mais am na lu ñu bëgg a woon waaj ci xamal ko ne ko ki ngay ñëw fii léegi ci moom kilifa la muhammad bii nii bokkul ak muhammad ba ngeen xamoon màkk daan ko tooñ ak këll këlli ak di ko fontoo kii beneen muhammad la alayhi salaatu wasalaam boo xamante ni am na force léegi am na doole ànd nag ay nit yu xam dayoom gëdd bi mu laaj dëgg-dëgg dañ ko koy jox almugirat ibn shuba taxaw ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam yore jaaseem taxaw tiim ko mel na comme garde rapproché boobu muy wane ne kon situation bu nekk ak lu mu laaj léeg day baax kilifa buy jëflanteeg ñenn ñi mu xaw leen wan boppam tuuti ndax am na ci nit ñi ñoo xam ne duñ la respecté lu dul ci rapport de force lañ lay respecté mooy boo leen wanee sa bopp wan leen sa doole ci lañ lay joxee tuuti respect sinon boo ko defulee duñ la respecté bi Urwa ñëwee di wax ak yonente bi alayhi day def buy wax moom di jàpp ci sikki mu yonente bi alayhi salatu salaam xam naa loolu lu mu tàmmoon la ndax di ne min na ko lan la al Mughira def saa bu Urwa laalee sikkim bi rek mu tël loxo bi ne ko ba ko sa loxo laal ba sa loxo laal te sikkimam noonu la ko Urwa doon def noonu la ko al Mughira ibn doon def Urwa xool ko sànni na ko ay baat di ko jéem a provoqué waaye kooku faalewu ko ndax li mu ko doon fàttali mooy benn xew-xew bu xewoon ci ci mbiram jamono yi mu nekkee ceddo laata muy tuub mu ko koy jéem a fàttali naan ko mooy yow mii nga xam ni démb barki démb yaa fi def lu ne nàngam sàngam tey yaay toog fii naan da ngay tarbiyewu waaye kooku waxu ko dara mooy provocation yi ñu lay provoqué pour déstabiliser la di la fàttali sa ay démb ak yu mel noonu faalewu ko yonente bi alayhi salatu wasalam moom li nga xamante ne bi moom moo ko indi woon yépp Urwa gis saxaaba yi ni ñu nekkee ak yonente bi alayhi salatu wasallam ak bëgg bi ñu ko bëgg ak respect bi ñu am ci moom loolu yéem ko moom bi mu delloo gars yi seen communion dañ ne kii moom ak ki demoon du kenn bi mu agsee mën na leen sama gars yi man dem naa fréquenté ñi ñuy tudd fii ñépp moo xam buuru nit ñu ñuul ñi la di an najashi wala buuru romain yi la wala buuru perse yi la kenn ku ci nekk dem naa ci yow fréquenté naa la gis naa ni say nit nekkeek yow mais musuma gis nit koo xam ne ay nitam fonk nañ ko bëgg ko comme ni niti muhammad yi bëggee muhammad musuma koo gis alayhi salaatu wasalaam musuma koo gis déjà kon moom situation bi am na lu mu def ci moom am na lu bàyyi ci moom mu dellu di wax loolu kuffaaru Quraysh li mu leen wax mooy man daal kii li mu bëgg ba yóbboo ngeen mu def ko wala ngeen yéen lu ngeen di def amatuma ci beneen solution boo xamante ni bi moom laa ciy wax kon loolu di wane rek ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wëlbatiku wala boog mi ngi wëlbati situation bi mu wëlbati ko ci seen seen kaw ci loolu lañ yebalee Mikraz ibn Hafs Mikris bi muy ñëw ñenn ñi nee nañ moo tëbal boppam ne xaaral man ma dem ñii dañuy nooy nooylu dem ñëw fi nekk di di wax ay waxi sentiment bàyyi leen man ma dem daal di jóg dem yonente bi alayhi salatu seen ko muy ñëw mu ne saxaaba yi kii di ñëw de rajulun ghadir nit la koo xamante ni bi yoonam newu ci ab kàccoor la boo xamante ni amul lu muy xool amul lu muy seet xool leen bu baax ni nga xamante ni bi noonu ngeen di jëflantee ak moom bi mu ñëwee ci yonente bi alayhi salatu wasalaam yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ak moom posément calmement mayu ko dara ci boppam explique ko li mu koy wax soriwul ak moom ci wax ji bàyyi ko mu dem parce que xam na ni kii amul lu mën a wax ak moom nga gis traitement bi muy traité ñi ñu yebal bokkul li tax mooy kenn ku nekk ci ñu njabal xam na la xam ci yow lu tax mu xam naka lay jëflanteeg yow loolu di wane ne tamit bu loo amee sa digganteek noonu baax na nga xam ko xam ay nitam xam carte yi nga xam ne moom lay jouer xam ay atome pour nga mën a répliquer xam lenn lu nekk naka ngay jëflante ak moom ndax bu dee ñooñu ñëwoon xamu leen mën na def erreur mën na def njuumte ci ni mu leen di traité ak ni muy jëflante ak ñoom waaye daf leen xam kenn ku ci nekk. bi nga xamante ne bi nekk nañ noonu ñu toog ba mu yàgg ci bi muy nee nañ sax bi muy wax ak Mikres ibn Hafs ci la Suhayl ibn Amr ñëw Suhayl nekkoon nit ku dal koo xam ne boroom xel la moom daal di ñëw ànd ak mbooloo di ñëw bi ko yonente bi alayhi salatu wasalaam séenee muy ñëw dafa pare ci wax jëm doon wax ak Mikres daal di ne saxaaba yi sahula amrukum seeni mbir yomb na ñii bu ñu bu ñu délégué Suhayl muy ñëw mooy léegi bëgg nañ jàmm bëgg nañ jàmm te loolu faaru Quraysh defuñu ko ci seen tayeefu bakkan dañ ko def par situation bi dañ commencé woon di leen échapper ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam stratégie yi mu joué ci ñi ñu yebal mu dem wax màkka ak ñi fa ñëw mu wax leen lu mel ne Budayr war Warqa mi delluwaat wax liy indi jullit ñi ak li indi yonente bi alayhi salatu wasalaam ne bokkul ak li ñu fi waxoon dafa daal di indi ay problème ci biir seeni sàppe ñu tuddee al ahabish muy mbooloo yi nga xam ne ñoom lañ dajaloon ci arab yi ngir ñu ñëw jàppale leen ñooñu dañu daldi ne ñun li yëf leeratul ñun génn nañ ci Quraysh xam ne kon bu nit ñi rocceekoo bàyyi leen ak ñii soo moytuwul yëf yi dootu situation bi dootuñ ko mënati xëy na maîtriser ñu xam ne kon intérêt bi ñu am mooy naxante ak moom jéem a fex dem ci négociation kon yonent bi alayhi salatu salaam moo leen contraindre moo weñ seen loxo ngir ñu ñëw négocier ak moom te fi mu toog jógu fi sallallahu alayhi wa sallam mais ci stratégie yi mu noonu la def alayhi salatu salaam ba Quraysh yabal Suhayl mu yabal borom xel moo xam ne dafa ñëw pour négocier si te loolu bi ko yonent bi séenee alayhi salatu muy ñëw rek la wax saxaaba yi ne leen gars yi day ñi ngi ñi ngi ñi ngi jéem a ut pexe ñi ngi jéem a ut yoon pour nu ñu ñu ñu déggoowee ak yéen waaye du ñu ma wax lenn loo xamante ni bi dañ ciy jublu màggal néegu yàlla bi lu dul na dinaa ci ànd ak ñoom lu dul na dinaa ci ànd ak ñoom <coughs> am na sax ñu wax ne avant kooku di ñëw yabal nañ keneen koo xamante ni turam teewluwuma ko kooku bi ñu ko yabalee yaakaar na xulays la xulays ibn alqama alkinaani xulays bi ñu ko yabalee yonente bi alayhi salatu wasallam seen ko muy ñëw daf ne kii ci ñim bokk dañoo fonk loolu néegu yàlla bi léegi xam nga nu ngeen di def balaa muy agsi génn leen gàtt yi génn leen gàtt yi nga xam ne moom lañ takkaloon ay buum ba ñaasoon leen ngir wane ne ay gàtt la yoo xam ne dañ leen a war a rendi ca néegu yàlla ba génne leen gàtt yi rek ngeen jal ko ci biti te yëkkati seen bat di di di def tahlil di di di di sàbbal yàlla subhanahu wa taala di kàbbar def li ñu tuddee talbiya labbayk allahuma labbayk avant muy agsi gars yi génn gàtt yi daal di koy teg commencé di yëkkati seen bat di tudd yàlla ci kaw ci yenn riwaayat dañ ne moom agsi sax defu ko agsiwul ba mu séenee loolu dafa dëpp daf ne moom lii moom xalaatul sax di dem di ci am lu mu ciy wax wala di ko jéem a gàllankoor loolu tamit di wanewaat stratégie wu yonent bi alayhi salaatu salaam ci ni muy tourner situation bi ci ne gis na benn émissaire boo xam ne xam na fi mu bokk xam na ñoom fii néegu yàlla bi ak di ko màggal àgg ci ñoom mu jëfandikoo loolu bi mu ko wanee kooku kooku gis ko kooku dafa daal di dëppaat dellu màkk ne leen ñii boo boo ngeen bàyyi leen leen ñu ñëw jaamu si yàlla loolu moo leen fi indi man seen li ngeen di def ni àndatuma ci ak yéen kon léegi màkka ñi ngi commencé di ñàkk ay lan ay ndimbal ndax ñañ doon yebal sax ñu dem ñooñu bu ñu ñëwee ne leen man àndatuma ak yéen ci li ngeen di def nekkoo leen ci dëgg kon dëgg ji commencé di leer ñu gis ne yëf yaa ngi leen di échappé ci loolu lañ yabalee Suhayl ibn Amr pour mu ñëw jéem a dabal situation bi balaa situation bi di di leen rëcc di seeni loxo ci loolu lañ yabalee sohayl ibn amr mu ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam yonente bi alayhi salaam ba mu ko gisee mu ne laqad araada al qawmu sulha xiina baathu hada ar rajul mu ne gars yi de bëgg nañu jéem a ut jàmm ut lu ñu juboo ak yéen ci yabal gi ñu yabal sohayl ibn amr ci loolu lañ yabalee sohayl sohayl ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam bi ko yonente bi alayhi salatu wasalam séenee daal di wax saxaaba yi ñu génne gàtt yi teg ko daldi di tàmbali waat di tudd turu yàlla pour xamal ko ne ko ñun lii moo ñu fi indi waaye xeex indiwuñu fi Suhayl bi mu ñëwee toog ci yonente bi alayhi salatu wasalam di waxtaan ak moom comme moom borom xel la ci jamono yi nga xamante ne Suhayl mi ngi ci yonente bi alayhi salatu wasalam ñiy waxtaan pour jéem a ut yoon wuñ jaar ba dëppoo ci lenn ci lañ gis ne Ousmane ibn Affan ma demoon ñëwul ñu laaj lan mooy mbiru Ousmane am ñu wax ne Ousmane gars yi dañ koo rey ca Makka bi ñu waxee loolu nag ci la yonente bi alayhi salatu wasalaam nag bu fekkee dañoo rey Ousmane day boyo boo ngeen jug jaayanteek man ñu dem xeexi ji ci yoonu yàlla ndax loolu moom duñ ko seetaan loolu ñàkk fayda lay daal di doon ndax lu ne mën naa koo supporter ci li ñuy def ci ay provocation ba mu des ma yabal ci ñoom ku bokk ci man ñu koy rey loolu du ma ko supporte loolu di wane ne kon neex deret gi jàmm gi ak ut jàmm gi yépp àggul ci ñàkk fayda salawatullahi wasalaamu alayhi te loolu moo doon ay qualité leader ci ni mu nekkoo woon ku digg doomu koo xam ni moo gën a lewet kuy lewet waaye lewet du àgg ak moom ci ñu koy ñàkkal fayda di ñàkkal fayda diineem ak ñi mu bokk salawaatullahi wa salaamu alayhi loolu nag dafa nekk benn juste milieu boo xam ne digg doom boo xam ni pour nit ki sàmmoonte ak moom lu jafe la surtout ci un leader sàmmoonte ak nooy bu nooy bu ko laajee ngir loo xam ne ay stratégie la loo xam ne intérêt intérêt commun la muy njariñu ñëpp la ak loo xamante ne ay résultats yuy ñëwi ji ca kanam la te sax nit ñi jamono ji gisuñu ko wala bàyyiwuñ ko xel te yaa ngi koy sooraale mu daan nooy ci loolu ngir jot ca waaye terewul bu tooñ jéggi dayoo amee bu jëm ci moom goo xam ne bu ko nangoo mu jur ñàkk fayda du ko nangu sallallahu alayhi wa sallam biñ ne dañoo faat Ousmane ci la jug ne saxaaba yi nañ jaayante ak moom saxaaba yi daal di jóg tàmbalee jaayanteeg yonante bi alayhi salatu salaam ngir dem xeexi ji ñenn ñi saxaaba yi nee nañ dañoo jaayante woon ak moom ci dee ñenn ne dañoo jaayante woon ak moom ci bañ a dellu ginnaaw ñu jaayanteeg yonante bi alayhi salatu salaam loolu moo indi bayatu ridwan laqad radiya allahu an almuminina id yubayicuunaka taxta alshajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala alsakinata alayhim wa athaabahum fatxan qariba muy jaayante boobu ñu jaayanteeg yonente bi alayhi salatu salaam keroog ci suufu garab googu mu toogoon loolu moom lañ tuddee bayatu ridwan muy jaayante gi yonente bi alayhi salatu salaam waxoon ne laa yadxulu nnaara ahadun baaya taxta shajar yonente bi alayhi salatu salaam mës na wax ne képp koo xamante ni jaayante ne ci suufu garab googu du dugg aljanna du dugg safara du dugg safara koo xam ne jaayante ne ci suufu garab googu ba xafsa ne ko ah xanaa yàlla waxul ne wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya yàlla subhanahu wa taala nee na amul ci yéen kenn lu dul ne dina dugg safara te loolu yàlla da ko waat ne loolu dina am ndax luy am la yonentu bi alayhi salatu wasalam ne ko mu ndax jànguloo li ci topp thumma nunajji alladina taqaw wa nadaru zalimina fiha jithiya ndax jànguloo li ci topp mooy yàlla musal gëm musal ñi ragal yàlla ñi gëm yàlla ci safara soosu waaye ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay tooñkat ñoom la fa yàlla subhanahu wa taala di bàyyi sax leen ñu sax fa mu nekk ne ñaari tafsir la ko borom xam ne di tafsir ñenn ñi dañuy wax ne wa in minkum illa al wurud bi maana al muruur wa lamma warada maa madiyana mooy al muruur muy romb mooy amul ci yéen kenn lu dul ne dina romb ci safara mooy romb gi ñuy romb ci kaw safara ci li ñuy tuddee as siraat tuddee siraat wala wa min waariduha mooy duxul ak duxul bi nga xamante ni li muy tekki mooy dugg safara comme li yàlla subhanahu wa taala wax ne annaaru yuraduna alayha guduwan wa ashiya wa yowma taqumu saatu adxilu ala firawna ashadd al adab mooy ne dañuy dugg ci biir safara ñun ñépp ñi gëm yàlla ak ñi weddi yàlla waaye ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo gëm yàlla yàlla da koy def mu nekk bardan wa salaaman muy de nekk jàmm ak sedd ci ñoom du leen lakk ginnaaw bi yàlla génn leen fa bàyyi ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy yéefar yi ñaari tafsir yooyu bu ci mën a am yonent bi alayhi salatu li mu waxoon mooy ku jaayonte ci suufu garab googu kooku du dugg li nga xamante ne bi moom mooy safara nee nañ am na jenn waay joo xam ne dafa wax ne illa saaxibu aljamal al ahmar ña fa jaayonte woon ñëpp dinañ dugg aljanna ba mu des borom gëlëm gu xonq ga donte riwaaya bi riwaaya bu wérul la daifa mais dañu wax ne daa am koo xam ne gëléemam dafa réeroon mu dem di ko seeti ñu ne ko kaay jaayante mu ne man talumaa jaayante sama gëléem laay seet yàlla moo xam lan moo tax gëléemam réer ci jamono jooju ba tax talul woon a jaayonte mu dem di ko wëri ji ci loolu la nit ñi jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir dem xooli ji ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo faat Ousmane ibn Affan ñu ja ñu jaamaarloo ak ak ñoom léegi bi loolu amee mi ngi amee ci kanamu Suhayl ibn Amr mu gis situation bi gis li xew ci loolu lañ dawee daal di xibaar waa Makka ne leen gaayoo ngay jaayante pour ñëw ne da ngeen a rey Ousmane lijjanti si loolu ci la gaa yi gaawantu daal di libéré Ousmane ak ña fa nekkoon ñëpp ne leen gaaw leen ngeen dem évacuer leen ci lay woon ne la yabuñu jullit ñi mooy bi yonent bi alayhi salaam déggee ay information comme quoi ne dañoo faat Ousmane wala dañ koo téye nanguñ koo bàyyi bi ñu déggee ci seen émissaire ba fa nekk ne ñu ngay jaayonte ngir ñoom seen bakkan ñu bàyyi ko fi xam nga xeex ak ku ragalul dee moo gën a metti te loolu à chaque fois mooy indi problème bu ñu dul jullit jaamaarloo ak jullit ni ci li leen di gën a sonal loolu bokk na ci mooy ki nga xamante ne bi moom bakkanam bi da koo jaay yàlla jëndee ko aljanna ak koo xamante ne bi moom lu ko xuri sax bugg ko ñaar ñooñu seen xeex du tolloo moo tax bi ñu gisee loolu ci lañ informé waa Quraysh kuffaar yi daal di gaawantu daal di génne ñépp ñi nga xamante ne ñoo fa nekkoon ñu dellu bi ñu ñëwee yonent bi alayhi salatu wasalaam ci la soog nag bàyyi yëf yi dem xeexi ji bi léegi nag toog nag pour lijjanti ak ki nga xam ne moom lañ jabal muy Suhayl bin Amr li nga xam ne moo aju ci wàllu sulx bi te mooy accord bi nga xam ne war nañ koo signé ci diggante ñaari parti yi ci loolu lañ toogee daal di commencé di citer ay points yonent bi alayhi salatu salaam woo Ali ibn Abi Talib ne ko na ñëw bindal ko li nga xam ne moom la wax ci digganteem ak Suhayl ibn Amr Ali daal di jël tàmbali commencé di bind mu daal di koy wax ne ko bindal bismillahi rahmaani rahim na bind ne bismillahi rahmaani rahim maa ngi bind ci turu yàlla mi nga xam ne mooy arrahman di arrahim Suhayl ne ko taxawal ñun xamuñu kan mooy arrahman moom la yàlla waxoon ne wahum yakfuruna birrahman wa ida qila lahum usjudu lirrahman qaalu wama arrahman anasjudu lima ta'muruna wa zaadahum nufura ñoom dañu wax naan wama arrahman ñoom xamuñu rahman gëmuñu rahman waaye uktub bismika allahumma bismika allahumma Suhayl ne ko bul bind bismillahi rahmaani rahim bindal bismika yonente bi alayhi salatu wasallam ne ali bin abi talib bindal foofu la problème njëkk a tàmbale bismillahi rahmaani rahim la bindulu mu ne ko bul bind bismillahi rahmaani rahim bindal bismika allahumma mu daal di koy digal na ko bindal bismika allahumma mu ne ko bindal ne lii mooy li nga xamante ni waa Màkka waa Quraysh dëppoo nañ ci ak muhammadun rasulullah mu ne ko bul bind muhammadun rasulullah salawatullahi wasalaamu alayhi bu ñu gëmoon ne yaay rasulullah duñ fi nekk di jaamaarloog yow bay toog fii naan dañuy def ay négociation gëmuñu ne yonente yàlla nga bindal muhammad ibni abdullah am na sax ñu wax ne jotoon na ko bind yonente bi alayhi salaam na ko dindil rasulullah ji mu ne ko man du ko dindi mu ne ko wan ma fan nga ko bind ndax mënul woon liir mu wan ko ko moom mu fompal ko boppam salawatullahi wa salaamuhu alayhi loolu lu ko lu ko weesu ci ak nooy amul waaye nooy la goo xam ni danga koy yaakaaree danga koy foogee nooy walla ñàkk fayda mais léeg-léeg nit bu benn force bi nekkul ci moom ci ay ngëm-ngëmam ci ne lii muy def nii dëgg la du nangu yenn yi xam nga li yonent bi alayhi salaam doon nangu nii lii confiance dëgg la mooy wóolu li muy def moo ko tax a nangu lii wóolu li muy def bu doon ragal moo nekk ci moom du ko nangu ndax ragal bu nekkee ci nit daf lay stressé daf lay teg ci situation boo xam ni da ngay nekk à la doo nangu dara lu ñu la wax nga ni déedéet du ma ko nangu du ma ko lii di da ngay sax wane doolee ak kattan gu ëpp ndax dangaa tiit da nga ragal wóoluwuloo li ngay def ñemewuloo li ngay def moo tax ànduloo ak sérénité daluloo mais yonent bi alayhi salaatu salaam bismillahi rahmaani rahim arrahman loolu du problème dindil bindal bismika muhammadun rasulullah rasulullah gamuñu dindil man xam naa ne maay rasulullah donte wedd ngeen ma maay rasulullah kon sama sama sa sama nekk rasulullah du du ci ñu lu ñuy bind fii ak ñàkk koo bind fii lay ne lay amee question bi weesu na foofu la yàlla dogal ca arsh la ca kaw du ci kayit gii ñuy bind nga xam ne boo ëllëgee ñu xotti ko loolu moo may def rasulullah wala dima dindi rasulullah xam na ne lii ay futilité la rasulullah am du lii moo koy changé moom am na objectif yi mu am yoo xam ni du seen provocation yii moo ko koy yàqal nga gis dal boobu mu am noonu loolu lu jafe ci leader la lu jafe ci leader la parce que dem na ba xam ne jàpp na leen ci point bëgguñu ñu rëcc ko te loolu saxaaba yi mu àndal xamuñu ko ba léegi situation bi moom li mu ci dégg ak ni mu ko xamee ne situation bi changé na kenn ci jullit ñi xamu ko kenn ci jullit ñi xamul situation bi na changé na kenn xamu ko gis-gisu yonent bi alayhi salaam ni mu soree woon moo ko may mu xam ne situation bi changé na li tax situation bi changé mooy koo xam ni reconnaître woon sa existence jàppee la woon ngay dara nawle wontewul ak yow bu demee tey bay yebal nit muy négocier ak yow mooy situation bi changé na bu demee bay toog ak yow nawle ak nawle ngay wax muy wax ngeen di déglonte di bindante ay accord mooy kon changé na ci koo xamante ni xeebel rek la daan jëflante ak yow ci ne musulaa respecté musta nawlantewu ak yow bi yonent bi alayhi salatu wasallam gisee situation bi demee noonu la xam ne nañ ñëw léegi ñu négocier te xam na ni li muy négocier ak ñoom insha allahu taala moom ci avantage am rek lay nekk ci lu koy jariñ moom ak jullit ñi rek lay nekk loolu moo tax mu ne buñ ñëwee luñ ma mën a wax ci loo xam ne dañ ciy màggal néegu yàlla bi dinaa ci ànd ak ñoom kon ñu dindi rasulullah mu ne nañ dindi rasulullah moo tax keroog bi xawaarij yi di sonal ali ibn ci bi mi négocier ak euh, diggante Abu Moussa al Ashari ak Amr ibn al Aas bi muy négocier ak waa Cham te Muawiya ibn Abi Sufyan jiite woonu leen radiyallahu anhum bi nga xamante ni dindi na moom euh, Abu Moussa turu amirul muminin ci Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib nangu loolu ndax négociation yi xawaarij yi seen ñàkk dégg diine dafa tax ñu ñëw ci Ali ibn Abi Talib di ko indil ay problème ne ko naka nga mën a nangoo dindi amirul muminin ci sa tur ndax dangay ngay ak ñoom ne ko immaa nga nekk amirul muminin wala nga nekk amirul mushrikin ñaar yooyu benn moo mën a am amirul muminin wala amirul mushrikin comme dindi nga amirul muminin bi nag amirul mushrikin moo fi des ñu waxee ko ko ci façon bu bu bu yombee noonu waaye Abdullah ibn Abdullah ibn Abbas bi muy waxee ak ñoom ci xam-xam daf ne leen ñaar ban moo ci gën a garaaw yonent bi alayhi salatu wasalaam nangoo dindi rasulullah ci turam wala ali nangoo dund amirul muminin ci turam ban moo gën a mag ñu ne ko bu rasulullah bi moo gën a mag mu ne pourtant yonent bi alayhi salatu wasalaam keroog bi mu négocier kuffaaru màkka nangu na loolu kon kii situation bu ko yóbboo ci li mu nangu ko lan ngeen ko ci mën a indil ay problème ñu ne ko waa li nga wax noonu la gisewuñu ko woon noonu loolu moo tax euh, xam-xam bu ko kii jàngat faw mu am xóotu gis-gis bañ di jàngat situation yi xew ak xew-xew yi ci kaw nii rek di ci jël ay position yoo xam ne yu radical lay doon yoo xam ne soo moytuwul li muy yàq moo ëpp lu muy defar mais ni yonente bi alayhi salatu wasallam daan doxalee ci ay situation dangay gis ne li ci ëpp danañ xool li nga xam ne mooy masaalix yi nekk ca kanam muy njariñ ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ca kanam yi nga xamante ni du sax lu teew nii lu nit ki di gis loolu nag pour nit ki mën di ko sooraale faw mu am benn gis-gis bu nekk ci moom ci loolu la ñu mën a bindee yi nga xam ne dëppoo nañ ci yi nga xamante ni dëppoo nañ ci bi ñu bindee loolu nga xamante ni moo doon introduction bi léegi mooy dëgg-dëgg l'essentiel te mooy ñu dellu ñu dëpp jullit ñu ne loolu nu mu mën a nekkee ngay nangu ñuy dellu te ñun armal nañ ba yore suñuy gàtt yi nga xam ne moom la ñu war a rey ba dara desul lu dul dugg màkka mi ngi nii bu ñu yuuxoo sax waa màkka dégguñu ndax fañ daloon diggante mu màkka 22 kilomètres la am na ñu wax ne marxala la marxala mooy 40 kilomètres loolu mooy li gën a siiw ci téere siira mais ñi ko natt dëgg dëgg dëgg dëgg nee nañ matul sax marxala matul 40 kilomètres ay 22 kilomètres la ak Màkka loolu kon soriwul waaye ànd ak loolu mu nangu ne dafay dellu ak jullit ñi du dugg Màkka loolu metti woon na jullit ñi lool ba Omar ibn al-Khattab ne ko mu ndax yaa ñu waxoon ne gis nga ne dugg nañ Màkka loolu dinañ ci ñëw insha allah yonent bi alayhi salaatu salaam bindaat ak ñoom ne seen umra boobu dinañ ko fay waaye déwén. lañuy ñuy ñëwaat umra buñ ñu ñëwee déwan dinañ leen bàyyi ñu dugg def fi trois jours du ñu yor ngànnaayu xare ngànnaay yi nga xamante ni moom la ñuy yor mooy ay ngànnaay yu woyof lay doon yoo xam ne xare taxu koo jóg bu ñu ñëwee ñu bàyyi leen trois jours ñu dugg fi daal di def seen umra te loolu ni ko waxee woon noonu la amee dañoo dellu ba sa déwan sa ñu ñëwaat bi ñu ñëwaatee yonente bi alayhi salatu wasallam jëfandikoo foofu beneen stratégie ndax dañoo ñëw ponkali Quraysh yi mer ne ñoom situation bi métti na ci ñoom métti goo xam ni lii mënuñu ko supporter ñu génn dem seen yoon di lay woon stratégie wu yonente bi alayhi salatu mooy li ko doon bañal daaw nangul nañ ko ko ren benn at bi fi muñ loolu du dara amul problème bu fi nekkoon di forcer dinañ tuur deret ci nit ñi am fi ay yàqute am te jaru ko mu naa muñ naa xaar benn at yomb naa muñ sa déwén sa lañ doon bañ nangu nañ ko ci façon boo xam ne neexu leen waaye mënuñ ci dara mu ñëw def lu ko du wax sax du wax sax def lu ko neex waaye mu ñëw def défilé la doon def défilé boo xamante ne dañu ne paraat parade bi ñu doon def mooy dafa ñëw ñuy tawaaf mu ne jullit ñi nañ jël seen armali ñu jaarale ko ci seen suufu loxo yi loxo droite bi ndax gars yi dafa dañ taxaw dañ toogoon ci mbedd mi di leen di leen seetaan di leen xool nit ñi dañoo génn di seetaan jullit ñi di leen xool ndax niñ gisee ñuy dugg màkk àndandoo yonente bi alayhi salaam ne bu ñuy wër nañu génne seen loxo yi génne biceps yi wan gaa yi jàpp bi ceene bi beneen bi ci des mooy trois tours yi bu ñu ko sax dox nañ ko cokki cokki tuuti mel na koy daw ni ñuy àndee noonu mouvement boobu ak force boobu loolu dafa am lu bëri lu mu def psychologiquement ci waa màkka ci ñu amaat respect ci jullit moo tax sa après Omar bi xew-xew boobu jàllee radiyallahu anhu mu laajte ne li ñu yonent bi digaloon alayhi salaatu salaam ci tawaaf boobu xamoon nañu stratégie la woon ci ramal bi mu ñu digaloon ak ittibaa bi mu ñu digaloon ne nañ ko def loolu mu taxoon mu de mu digal ñu ko jeex na waaye duñ ko bàyyi dañuy continuer di ko def ndax nii la ko jàngalee foofu bokk na loolu exception la ci qaayida bi ñuy wax ne al xukmu yaduru maa illatihi wujudan wa adaman foofu zaalat al illa wa yabqa al xukm mooy ne atte bi daf fi des ba léegi même la ko waraloon bu fekkee nekkatu fi atte bi daf des ba tey ji dañ koy def bu ñu demee ci tawaaf bu njëkk bi ñuy tawaaf dañuy def loolu yonent bi alayhi salaam des fa ñetti fan ba ñetti fan yi jeex mu génnaat dem neexu leen waaye mënuñ ci dara ndax ñoom ñoo ko signé woon kon gis nga dafa leen tiiñal alayhi salaatu wasalaam moo tax kon bi mu nangoo loolu ne dafay dellu jurit ñi mer ci loolu ba Omar bi al-Khattab ne ko mu da yaa waxoon ne gis nga ñuy dugg màkk di tawaaf mu ne ko ndax dama la waxoon ne la ren la loolu mooy li ma waxoon sànq ci ne moom alayhi yàlla bu buy def mbir des fois boo teeyul mën ngaa juum ci ni suñu borom di doxalee ndax doomu aadama dafa yàkkamti mbiram te yàlla benn plan bu koy dérouler da koy tàmbalee foo xam ne doo ko sax fooge fa muy fa muy daanu ji doo ko sax fooge foofu gis nga bi yàlla di jël Moussa di ko yóbbu kër na nit ku xamul daf naan mo kii daf koy jox kii pour mu rey ko di loolu ngay wax fekk ne déedéet yàlla da ko koy jox pour mu yar ko pour ëllëg mu daaneel nguuram moo tax boo comprendreul ni doxalin yàlla di doxalee da ngay léeg juum yàlla bi muy génne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mook jullit ñi dañ yaakaaroon ni gis li ko yàlla wan dafay dem rek automatiquement loolu réalisé wu mais loolu bu boobaa kon dinañ omra ñibbisi waat mais résultat yi ci war a topp du ci topp ndax ñoom yàlla xeebal na leen ñu yam rek ci seen génn bi ñuy génn di omra kase omra bi ngañaay la naam waaye yàlla bëggal na leen résultat bopp boobu moo tax kon yàlla doxalee ko noonu bi bi ko bi ko Omar ne ndax gisuloo woon ni dañuy omra dañuy dugg ci biir tawaaf daf ne ko ndax ren laa la waxoon mu ne ko déedéet waxoo moon ren de mu ne ko kon jàppal ne di nga dugg màkk te di nga tawaaf ci kaaba gi ndax yàlla moom moo ko wax waxu yàlla du deñ digu yàlla du deñ jàppal loolu waaw mooy sulxu bi ñoom ñoo leen wax ne leen du dugg moom lañ si woon mooy dañuy dellu du ñu dugg waaye loolu mooy mbiru suñu borom mooy ne yàlla wanoon na yonent bi alayhi salaam mooy la tadxulunna al masjid al haram boobu loolu mi ngi ko gisee woon madina la ko gisee woon loolu mi ngi ko gisee woon madina ba yaakaar ni day dem moom laa wax ne xëy na ahlu siira yépp ànduñ ci ndax ñeneen ñi dañu wax ne loolu mooy sababu génn bi mu génn am ñëw ñeneen ñu wax ne loolu du sabab bi ndax xam nañ ne suratul fatx mi ngi wàcc ginnaaw bi muy dellu madina ci la ci la ci la saar bi wàcc ci ginnaaw bu ñu waxee yi nga xam ne wax nañ ko ndax leen la ci toppaat mooy na dellu ba déwan sa mu delsi bu delsee dina dugg bu duggee du dugg ak ngànnaay yoo xam ne day mel na ku ñëw pour xeex si ñu dëppoo dëppoowaat ci tamit ne képp koo xam ne dikkal na yonente bi alayhi salaatu salaam ci waa Quraysh <coughs> koo xam ne dëpp dikkal na yonente bi alayhi salaatu salaam ci waa Quraysh jullit la bu gëm yàlla mu daw dem ci jullit ñi dañ koy delloo ak ku mën a doon waaye ku jógee ci yonente bi alayhi salatu wasallam ak jullit ñi daw dem màkka kenn du ko delloo yonente bi alayhi salaam ne d'accord na ci loolu jullit ñi ne loolu nu mun a nekkee am na suñu mbokk yoo xam ne fi mu nekk ñu ngi leen emprisonné ci màkka tenir leen foofu en otage ñi ngi souffrir foofu ñu bis bu ñu demee ba bëgg a rëcc rëcc pour ñëw mënuñu mënuñ leen a delloo ni ñuy waxee abu jandal ne camat ne jamet leewul mbiru yàlla ki nga xam ne mooy négocier waa Quraysh di Suhayl ibn Amr doomam di Abu Jandal ibn Suhayl ibn Amr ne jamet ak ay jéngam fexe ba rëcc fañ ko tëjoon di ko mbugale ko torturé ca Màkka ñëw daal di ñëw ak si ci yonente bi alayhi salaam bi mu ñëwee tatafoo ko ne ko du ma dellu yonente bi alayhi salaam ne Suhayl kii di dama lay ñaan njekk ci moom ñu bañ koo boole ci <coughs> <coughs> ñu bañ koo boole ci accord bi li ñu waxante nii ñu bañ ko cee boole Suhayl ne ko ci moom lañ koy njëkk appliqué nag mu ne ko dama la ko ñaan njekk mu ne ko ci moom lañ koy njëkk appliqué day dellu mu wax wax mu ne ko day dellu abu jandal yuuxu ne jullit ñi jàpp leen ci duma dellu su ma delloo damay kii ba jullit ñi seen xol yi maanaam di loolu yépp nattu yàlla la yàlla moo def loolu mu am ci jamono jooju tombe ci jamono jooju ñu signé loolu yàlla éprouvé leen ci déggal gu ñu déggal yonentam bi ak nangul gu ko nangul abu jandal ñëw ci anam boobu ndax loolu touché na leen trop moo tax xew-xew boobu dafa après jàngal jullit ñi yar leen yar boo xam ni moo tax saxaaba yi ginnaaw bi leen dara jaaxalatu leen ndax bu ñu jógee ci xew-xew boobu jàngee nañ fa loo xam ni Omar ibn al-Khattab moom dafa faa jógee di ja di jaamu yàlla lam daan woor ak a julli mu yokk ko di saraxe di jéggalu yàlla ndax mer wi mu fa meroon ak tàng wi mu fa tàngoon yépp xam nañ ndakate njuumte la woon li yonente bi alayhi salatu wasalaam def ci jataay boobu da A à lépp noonu la Omar nee na wax ji ma wax ak moom rek ci ñëw wax ak moom noonu rek da ci doon jéggalu yàlla te loolu yëpp di wane rek ni ñu wege woon yonente bi alayhi salatu salaam ak cër bi ñu ko joxoon salawatullahi wa salaamu alayhi ñu ne ko dafay dellu Omar ñëw nekk ci wetam naan ko ah comme kilifa gi nee na da ngay dellu bu yeboo nga dellu te nga muñ rek ah comme gëm nga yàlla mënaluñ la dara waaye li mu koy wax loolu yëpp mi koy buux jaaseem bi mu yor pour kooku rocci ko ba caw baay bi mi ngi ñëw di wax ak moom mel na ku koy defal waaye mi ngi koy defale nii jaasi ji di def nii di xaw a di ko won na ko jaasi jaa ngi nii roccil dóor ko dóor ko ko ndax xëy na loolu bu ko defoon kenn mënu ci dara luy am am na walla moom moo moom moo rey baayam léegi ñu ne dara amu ci ndax boobu moom dellu abu jandal munu ko woon supporter mi ngi ñëw kon di wax ak moom di ko xaw a mel ne koy buux jaaseem ji ngir kooku waaye kooku tamit deful loolu ba yàlla def ñu jël ko delloowaat ko abu jëndal moomu dafa dellu ginnaaw loolu la rëccaat ginnaaw loolu la abu jandal moomu rëccaat rëccin boo xam ne après da lay won rek ne la lu yàlla def rek am na lu tax mu def ko ndax Quraysh rëccu abu jandal après mu dina wex ci ñoom xàtt ba ñu jóge yabal ay nit Makka ñu ñëw Madina di ñaan yonente bi alayhi salatu wasallam njekk ci abu jëndal mu dem wax ak abu jëndal di ko tinu ci abu jandal mu mu dimbali leen ndax dafa am ku tuddoon abul basir abul basir tamit dafa bokkoon ci ñi xore si jàppoon ci ay jullit di leen sonal tëj leen di leen fitnaal ba mu rëcc bi mu rëccee ñëw madina fekk yonent bi alayhi salatu wasallam signé na accord ak yéefari màkka yi ne koo xam ne rëcc na ci jullit ñi màkka ñëw ci yonent bi alayhi salatu wasallam dañ koy delloo ñu yebal ñaari nit ñu jóge màkka mu leen ñu ñëw ba madina ngir jël si abu basir biñ ñëwee jël si ko yonente bi alayhi salatu wasallam ne ko ah mënuma ci dara man maa ko siñante woon ak ñoom te man ku ma siñanteel ay accord dama koy respecté dama koy sàmm dellul li tax mu doon nangu loolu du ñàkk fayda tamit ndax li ñu ko waxee mooy xam na ni julit bu gëm yàlla noonu bu koy noot di ko sonal du ko wàññi dara kon julit ñoo ñu doon sonal foofu xam na ni du leen wàññi dara ci seen diine alors que ki gëmul yàlla ba jóge ci julit ñi dem ci ñoom kooku tamit du wàññi dara julit ñi mu bàyyi noonu ñoo ñu ànd ak Abu Basir di dem ci yoon ba biñ ñëwee ba fenn ñu campé kenn ki ci ñoom ñaar toog yore jaaseem di nàmm ak defar kooku ne ko sa jaasi ji rafet na de ii jaasi ji moom xaw ma foo ko jëlee mu ne ko jaasi ji kay ni mu doyee war nu mu ñawee nu mu rafetee mu ne ko ma xool mu jox ko ko rek mu cor bopp bi ka ca des fëx daw ci noonu la daggee ay jéngam dem waa ji daal di dawee foofu ñëw ma dina ak tiitam ci yonente bi alayhi salatu wasallam yonente bi alayhi salatu wasallam ne kii de li ko dàq lu mu lu mu tiit la kii li mu gis lu ko lu ko tiital la ndax riir mi mu agsee ci yonente bi alayhi salatu wasallam bi mu ñu toog tuuti abul basir agsi yonente bi alayhi salatu ne kii de daf nar a jur dafay nar a indi ab xeex bis bu amee ñu ko dimbali xeex la nar xeex la nar bi abu basir déggee yonente bi alayhi salatu wasallam wax loolu mu xam ne da koo nar a delloo mu daal di daw ci la dem ba ci booru géej ga ci tefes ga mu dem foofu def fa benn campement am toog fa moom ak ay gaawam léegi abu jandal mii nii yonente bi alayhi salaam delloo woon moom itam dafa rëccee ay jamono màkka dem fekki ji kooku ñu nekk benn groupe nekk ay soldat yor fa benn commando boo xamante ni saa ba Quraysh amee caravane buy génn jaar ci àll boobu ñu dem dabi ko détourné caravane bi rey rey ña ca nekkoon léegi loolu nag mujj sonal Quraysh sonal leen ba dañoo mujj ñëw ci yonente bi alayhi salaam di ko ñaan njekk ngir mu wax gaa yi ñu ñu ñu ñu dimbali leen mbir mi mujj mett abul aas moo fa mujj jaar doon borom kër doomu yonente bi alayhi salatu wasallam ñu jàpp ko bi ñu ko jàppee yonente bi alayhi salatu wasallam yëg ko ci la leen ñaan njëkk daal di bind benn lettre yónnee ko abul basir lettre bi bi muy dem fekk na ko muy faatu dafay faatu fekk lettre bi mu ngi ci loxoom ñu daal di koy denc ña ca des yonente bi alayhi salatu wasallam digal leen ne nañ nañ dem ci jullit ni nañ dem dispersé wu dindi seen euh, mbooloo moomu ci loolu lañ lañ lañ arrêté seen loolu ñu doon def mu wan la ne kon li yonente bi alayhi salatu wasallam jëloon foofu comme décision ci ne dafay delloo abul jandal loolu la mujj jural Quraysh ma ne situation bi yëpp dafa mujj wëlbatikuwaat ci seen kaw kon ñu ñu <coughs> ñu dëppoo ci ne bu fekkente ne jullit jóge na ci euh, yéefar ñëw ci jullit ñi dañ koy delloo lu dul jullit bu jigéen ndax yonente bi alayhi salatu wasallam ci suratul mumtaxana loolu moo indi suratul mumtaxana mooy jullit yu jigéen ñi daan jóge màkka di daan ñëw yàlla dafa daan diggal jullit ñi ñu xool leen teste leen loolu mooy al mumtaxana bu ñu leen xoolee ba gis ne ñu gëm yàlla lañ bu ñu leen delloo ku ci nekkoon ne da nekk màkka amoon fa borom kër sa borom kër ñu jël la nga ko joxoon ci can ñu delloo la ko waaye kii moom du dellu jullit bu jigéen la boo xam ne dafa néew doole duñ ko delloowaat ci yéefar yi dañ koy bàyyi fii ci jullit ñi kon loolu moom appliqué appliqué wu ko ci jigéen ñi ci soxnay jullit ñi waaye ci góor ñi daf ko ci doon appliqué alayhi salaatu wasalaam mu bokk ci yi nga xamante ni waxante nañ ko mooy bu kenn ci ñoom war moroomam nañu sàmm nañu respecté li nga xamante ne bi moom lañu dëppoo te itam kenn bu mu dem di bett moroomam di dal ci kawam di ko attaqué par surprise wala muy laal alalam wala daal di jalgati lenn loo xam ne àqi beneen kuréel ba ca des la na kenn ku nekk respecté kuréel ba ci des nañu teg ngànnaay yi diiru fukki at yoo xamante ni kenn du xeex ak moroomam diiru fukki at yonent bi alayhi salatu wasallam ne jullit ñi fukki at yi soxla nañ ko ngir ñu gën a jubluwaat suñ bopp te loolu fi'lan lu wér la al imaamu zuhri muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri daf ne accord bii ñu def amul ngañaay lu jullit ñi mës a ngañe bu mel nii nee na mësul am ndax bi Quraysh téye loxoom ñu ne def nañ accord pour fukki at yonent bi alayhi salatu wasallam bi mu delloo Madina dafa tàmbali xool li nga xamante ne bi moom mooy may doole lislaam mu tàmbali ci gox bi nag gën gën cee léegi yi gën koo yittewoo ndax noonam bi nga xam ne moo doon constituer menace bi gën a mag muy Quraysh léegi war na ko ne Quraysh du ko sonalati léegi ci loolu la jubloo ci ñenn bokk na ci lu mel ne waa Xaybar muy ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo fa nekkoon ci ay yahud te daan dem di comploter contre jullit ñi ay weer lañ ci teg mu dem lijjanti seen mbir bi mu jotee xaybar la mu fa jëlee ci alal ñi nekkoon ci sulxul xudaybiya ak ña jóge xabasha ci diggante bi ñibbi si ñëw madina ñooñu la ko séddale ñi fekkee gazwatu al xudaybiya la mu jëlee ci alal ci xaybar ñooñu rek la ko séddale boolewu ci keneen ko dul ñoom mu jële fa alal ju bari joo xam ne yàlla teg na ko ci loxo jullit yi ci jamono jooju la bind ay lettre yabal ko ci buur yi nekkoon ci àdduna bi ngir woo leen ci lislaam lislaam bi tàmbali di gën a law di gën a yaatu te ci jamono jooju tamit la yonente bi alayhi salatu wasalaam yabal ay jullit ñu dem ngir jaamaarloo ji ak romain yi muy xaswatu al mu'ta xaswatul mu'ta muy xeex bu metti boo xamante ne rey nañ ci ay kàngam yu mag ci kàngaam yu jullit ni di Hamza ibn Abdul Muttalib Abdullah ibn Rawaha ak Zayd ibn al-Haritha ñii ñu faat leen ci xeex boobu ba yàlla def Xaalid ibn Walid moo mujj jël li nga xamante ni mooy direction wu armée bi ñi demoon noonu fexe ba def benn repli stratégique fexe ba génn jurit ñi ci situation bi ñu nekkoon daal di dellusiwaat Madina Xaalid ibn Walid foofu la la ñu gën a xamee ne Xaalid ibn walit ndakate général la boo xamante ne stratège bu mag la ci wàllu xeex ndax ñi jaamaar looloon ay téeméeri téeméeri téeméeri junni junni lañ mais bi mu jotee bi mu jëlee armée bi jël commandement bi rek dafa changé stratégie def beneen genre stratégie boo xam ne gars yi dañ yaakaar ne jullit ñi dañuy am renfort bu ñëw te fekk ne du renfort mais dafa changé ñi nga xamante ne point position yi fi position yi nekkoon da koo changé de sorte que gars yi dañuy jaxasoo yaakaar ne dafa am ñeneen ñu ñëw fekk ne ñeneen ñëwuñu diggante boobu gars yi di commencé di xoolaat ñoom tamit seeni stratégie ci la fexe ba def repli daal di génne jullit ñi delloo si leen madina bu ñu ñëwee ay nit di leen wax naan leen antumul farraaruun da ngeen daw dangeen ngeen daw yonente bi alayhi salatu wasallam ne leen bal antumul karraaruuna insha allah yonente bi alayhi salatu wasallam ne leen dawoo leen da ngeen def repli dellu si mais di ngeen delluwaat insha allah di ngeen delluwaat léegi loolu mu def ci empire bu mag bu toll noonu nga xamante ni ñooñu waa Quraysh doyuñu leen sax gàllax jamono bi muy def ak ñoom accord de paix ñoom ñuy dégg ne ma ngay dem di yabal ay soldaaram ñuy jaamaarloo ak romain yi lan nga yaakaar ni loola waa Makka war a xalaat ci jamono jooju ñu ngi war a xalaat ne kon kii léegi maanaam ñoom waxatul sax seeni wax léegi ñoom ñoom seeni wax waxatu ko ma ngay wax waxi ay empire romain yeeg ñooñu lay waxal léegi yor na armée boo xamante ni ñu lay waxal te kenn ci borom xam-xam yi dafa wax ci wax jooj ibnu Shihab wax ne li koy firndeel mooy bi yonente bi alayhi salaam di ñëw ci sulxul Xudaybiya ñi mu àndal waruñoo ëpp 1500 ci ay doomu aadama muy junneeg juróomi téeméer waaye bi nga xamante ni teg nañ ci ñaari at mu war a dellusiwaat makka li mu àndal fukki junni mat na ko fukki junni ci ñaari at. nga jëlee mbooloo mi nga xam ni doon jéem a dajale mbooloo mu të ko mbooloo mi weesu junni ak juróomi téeméer jafe na ci moom mu dajale lu ko ëpp ñu teg ci ñaari at mu mën a dajale fukki junni mooy wane na kay diggante bi nga xamante ne bi moom la fi signé ak ñoom accord de paix diggante boobu jullit ñi seen doole daf fay yokk ci anam bu gaaw a gaaw a gaaw gaaw a gaaw moo tax dañuy wax ne l'islam jamono ju muy nekk ci jamonoy jàmm jamonoy paix ci lay gën a faral di am doole ci lay gën a faral di tas ka ci jamonoy fitna moo tax ñuy wax na lislaam ci fitna la tas xamuñu lislaam jànguñu lislaam lislaam saa bu duggee ci jàmm rek am jàmm ñu jàmmal ko jàmmal ay nitam ñu mën a tasaare message am am am jotu liggéey lislaam ci àdduna bi lislaam dafay tas lislaam dafay am doole waaye dafa bokk ci yi nga xamante ni signé nañ ko ci accord boobu mooy ne koo xamante ni dafa bëgg a bokk ci benn parti ci ñaari parti yooyu daf ciy bokk ñaari parti yi ci giiru arab yi ku bëgg bokk ci benn parti da nga naan man ci parti wu Quraysh laa bokk wala ci parti wu jullit ñi laa bokk ci la xus xuzaa jóge benn giir bu tudd xuzaa boo xam ne dañ daan néewal doole ñoom ñu jóg ne ñoom bokk nañ ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ay gaam ñoom lañ féeteel ay aliyem lañ banu Bakr ne ñoom bokk nañ ci waa Quraysh loolu moo indi benn changement ci mbir mi ni mu demee après ndax ginnaaw bi banu Bakr dañoo dem ànd ak kuffaaru Quraysh dem dal ci kaw Xuzaa massacré leen gëm ne bu ñu leen defee loolu yonent bi alayhi salaam du réagir wala sax du ko yëg yàlla def kenn ci ñoom jug daw daal di dem fi nga xamante ne bi moom dina ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di koy nettali. li nga xamante ne bi def nañ leen ko muy rey bi nga xamante ne bi rey nañ leen ko euh, turu ki nga xamante ne bi moom moo dem tayib aynahu ala kulli xaal turam turam turu turu turu ki njabaloon ki daw ki daw laa bëggoon a gis amr ibn salim la tudd amr ibn salim amr ibn salim moo rëcc daw dem madina ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam expliqué ko situation bu triste situation bu bu naqari ci xol ne ko rey nañ ñu fa rey gën a yem rek ci rey bu ñaaw rey nañ ñu ko te ñi def loolu Quraysh la ñoo Banu Bakr ñoo ko def te ñun bi nga defeek ñoom accord bi dañoo ñëw allié wu ak yow jël suñu bopp taf ko ci yow waaye malgré loolu gis nga liñ ñu def ci la ko yonent bi alayhi salaatu ne ko incha allahu am nga ndimbal. ne ko am nga ndimbal daal di jug fi mu toogoon ci la dégal jullit ni ñu takk ak ñi ñi leen waroon ci madina yépp mu dégal leen ñu takk ànd ak moom ngir jëmali fi nga xamante ne bi moom mooy màkk li ngay déggee ci loolu mooy ne xew-xew boobu xew ci diggante banu bakr ak xuzaa ba amr ibn salim ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam sàkku ci moom ndimbal mu ne ko am nga ndimbal dimbalees na la jug ànd ak fukki junni nit ñu dem biñ ñëwee kenn doxul seen digganteeg màkka kenn doxul seen digganteek kaaba gi dafa ñëw tijji màkka mooy ndam li nga xamante ni mooy fatx bi nga xam ne moom lañ tuddee fatx bi gën a rëy te lenn ci saxaaba yi ku mel ne albara ibn azib wala anas daan nañu wax ñiñ daan jamonoonteel ne leen yéen li ngeen di jàppee ngañaay muy victoire bi gën a rëy ci lislaam mooy fatxu màkka ñun jàppewuñu ko fatxu màkka ngañaay li gën a rëy lu ñu am mooy xudaybiya mooy Xudaybiya boobu nga xam ne fa lañ toogoon def fa accord bi accord de paix bi ñun boobu lañ jàppee al fatxul akbar mooy fatx bi gën a mag ndax boobu keroog bi ñu signé accord bi bi ñuy ñibbi ci la yàlla wàcce aaya yi Cheikh Mouhamad doon jàng léegi inna fataxnaa laka fatxan mubina yàlla defal na la ngañaay lu rëy rëy rëy ngañaay lu leer loo xamante ni kenn du ci sikki sàkkaati ngañaay li ko yàlla defal li lay gën a wan na la ngañaay la moom moo jur fatxu makka li ñu siñante woon ak Quraysh moom la Quraysh jalgati yonent bi alayhi salatu salaam tijjee ci loolu nangoo ci loolu màkka léegi bu ñu seetloo dinañ gis ne yonent bi alayhi salatu salaam bi muy jóg di dem dafa doon dem pour defi ji umra ñoom ñu tere ko umra boobu mu nangu tere bi ñu ko ko teree ngir sa déwén sa mu ñëw fay ñu yaakaar ne ñoom loolu ndam la ci ñoom te xamuñu ne waxuma la jële ci loolu umra waaye ndakate dafay jële ci loolu ubbi màkk nangu màkk alayhi salaatu wasalaam loolu mooy li ma doon wax sànq ne léeg-léeg njiit boo xamante ni dafa am gis-gis bu sori mu nangu loo xam ni boo ko seetloo ci kaw da nga yaakaar ne ak nooy la da yaakaar ne ak ñàkk fayda la fekk ne déedéet dafay dafay gisee foo xamante ni fu sori la loolu la yonente bi alayhi salatu wasalaam def ci stratégie bi nga xamante ni bi moom la doxalee bu fekkente ni seetlu nañ yi nga xamante ni bi moom lañ mën a jële comme ay jàng ci xew-xew bi mooy sorik discours yonantu bi alayhi salaatu wasalaam ci ni muy doon doxalee ci ni mu doon tasaaree lislaam ak ni mu doon liggéeyalee lislaam loolu jullit ñi war nañ ko delloo si waat xam ne suñu diine du diine du diine como du diine cuuma cuuna du diine joo xamante ni diine ñàkk am xel la wala ñàkk yeewu la diine la joo xam ne boo ko jàngatee ci fi mu jaar ba ak si fii yépp da ngay gis ne lii dëgg-dëgg ndimbalu yàlla mu ngi ci waaye ki ko yàlla joxoon tamit du woon ku ndaw moo tax même yéefar yi gëmul yàlla bu ñu jàngatee personage yu yonent bi alayhi salaam jàng histoire am dañuy gis ne li mu réalisé ci histoire amul ku mën a ku mës a réalisé mel noonu amul musul am nit ku def loolu ak moyens yu ndaw yi nga xam ne yoroon na ko malgré loolu yàlla joxoon na ko ci wàllu stratégie loo xam ni doon na àgg ci ay objectif ci façon boo xam ne neex na noonam naqari na noonam da ci doon àgg te kenn mënu ko ci woon mënu ko woon empêché salawatullahi wa salaamu alayhi li lay wan ne la nitu jàmm la mooy ñëwul dugg ak ñoom ci ay xeex am na benn instant sax provocation yi mu dem ba ci bëgg a woyu dafa laaj saxaaba yi ne leen lu ngeen xalaat ci ñu dem jaamaarloog ñi jëflante ak ñoom abu Aboubacar ne ko li la tax a jóg mooy nga dem ci néegu yàlla bi def li la li la sa borom sant nañu dox jëm ci loolu ba nit ñëw taxaw suñu kanam ne du ngeen ko fi defee ñu lijjante ko ak moom yonente bi alayhi salatu wasalam daal di wax saxaaba yi ne leen siiru bismillah kon nañ leen dem intaliqu bismillah nañ leen dem loolu ko doon dikkal nga gis matam tamit ci déglu bi mu doon déglu saxaaba yi di waxtaan ak ñoom di leen laaj bu àggee ci dara nar a changer décision wala def dara day woo magi saxaaba yi laaj leen lu ngeen xalaat ci lii ndax ma def lii ndax ma def lii loolu nekk loo xamante ni du faiblesse mais force la muy capacité ak faculté d'écoute leader da koy am mais bu nit ki tëj tëj tëjee ay noppam ne moom du déglu kenn ay xalaatam doy na ko loolu non seulement dafay frustré ñi nga àndal ndax day jàpp day tax ñu xam ne yow wegoo leen fonk fonk woo leen waaye dalay dugal ci ay njuumte tamit leneen li ci des mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam fit bi mu am ak gëm gi mu gëm li ko yàlla di wan di ko ko dikk ba du sikki sàkk ndax njiit kilifa léeg-léeg sag dal ak gëm gi nga gëm li nga xamante ne bi moom nga nekk day jeexital ci ñi la wër ñi nga xamante ne ñoo nekk ak yow bu amoon ay doute rek sikki sàkk ci li nga xamante ne bi moom la bëgg a dem defi day feeñ ci doxinam ak mbiram ndax dañuy jóg rek ñu ne ña ngay dajaloo ñu ngay li mën nañ leen dëpp mosoo ko dégg benn yoon mën nañ dëpp musul wax waxi dëpp sallallahu alayhi wa sallam musul wax waxi dëpp ak lu mën a am dafay continuer di foncer di dem ba baa keroog yàlla di àggale mbiram sallallahu alayhi wa sallam loolu tamit di la wan ki mu doonoon fit wi nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala joxoon na ko ko alayhi salaatu wasalaam mu bokkaat ci tamit mooy nemmeeku gu mu doon xool mbiru ay noonam mooy ne jullit baax na ngay xam say mbiru noon di ko jàngat di ci ubbi sa bët di ko xam parce que boo ko defulee sa noon pour mu jekku la day yomb yabal bi nga xam ne yonente bi alayhi salaam yabal na ko Bishr wala Busr ibnu Safwan mu dem Makka defal ko espionnel ko espion la yónni espion mu dem espionné ji yabal Abu Qatada mu jël benn Euh, euh, mbooloo ñu takk di wër di xool li nga xamante ni bi moo leen wër ndax am na ay troupe ay mouvement ndax am na ñu ko bëgg a kar wala déet loolu yëpp day wane ne jullit da nga war a tamit nekk ku yeewu ci jamono ju nekk sa mbiru noon ba sa noon du la jekku bi nga xamante ni tamit mbir mi laaj na mu changé yoon bi mu jaaroon ndax xam na ni yoon bi bu ñu ko fi bëggee tendre embuscade day yomb te Xaalid bin Walid takk na commencé na fitnaal non seulement dafa changé ni mu doon jullee mu dem ba mu jar julli gi nga xam ne dañ ciy jaamu yàlla ñu soppi ko def ko lu ñu tuddee qasrul arkaan wa ida darabtum fi l ardi fa laysa alaykum junahun an taqsuru min alsolati in xiftum an yaftinakum alladina kafaru inna alkafirina kanu lakum aduwa mubina mooy ñu changé julli gi ñu doon julli sax niñ ko doon jullee wa ida kunta fihim fa aqamta lahum alsolata faltaqum taifatun minhum maak ci ni ko yàlla subhanahu wa taala digalee ne ko na changé sax jëmmi julli gi mu jullee ko beneen façon boo xam ne julli waaye dinañ tamit mën a aarale seen bopp mu nekk benn xeer ñaari picc jaamu nga yàlla waaye ci jaamu yàlla gi yaa ngi nekkaale tamit benn gardien boo xamante ni yaa ngi xool say mbokk jullit te yaa ngi ci biir julli loolu <laughs> subhanallah day wane flexibilité bi nekk ci l'islam ci ne situation bu nekk sa diine daf lay may nga mën a adopté wu ak moom am taxawaay boo xam ne day adopté wu ak sa situation boobu neewu leen julli leen rek yàlla dina leen sàmm julli leen bu leen leen faale bu ko de bu ñu ko defoon ñu fekk leen fa massacre leen yàlla du leen digal loolu yàlla du leen digal loolu leneen li ci desaat mooy bi mu demee ba ñu soppi yoon daf ne kan moo leen mën a soppi yoon ba génnee leen feneen muy saniyatul xandal ñu génnee ci saniyatul xandal daj ci coono yu rëy rëy rëy rëy ba sax ci yoon bi daf leen wax ne leen saniya bii ngeen di dugg xur wi ngeen jaar jaar bi ngeen fi jaar mi ngi mel ne fii yàlla subhanahu wa taala waxoon banu israil ne leen dugg leen ci bunt booba jaare leen ci bunt booba ku fa dugg yàlla dina leen jég dina ko jéggal ay bàkkaaram yéen itam képp ku jaar ci fii ñu jaar xur wi xamal ne yàlla jéggal na la say bàkkaar saxaaba yi loolu gën leen a sawarloo malgré yoon bi metti na fi ñu war a jaar jafe na mais loolu gën leen a sawarloo motiver leen ñu traversé ko pour mën a dem ak Xudaybiya bi yëfari màkk di dégg ne dem na Xudaybiya ba campé fa dafa fekk ne ñoom dañ sax jaaxle dañ ne fu mu jaar ñun ñu ngi woon ci yoon bi di jéem a xool fu ñuy jaar pour tendre ko embuscade yooyu ndakate moom deviné dévié na yoon bi loolu bokk na ci la sa noon di di respecté mooy ngay anticiper muy jéem a teg fi ay ndëgg sërëx ngay xam piège bi ba pare xam noo ko contourner day tax sa noon respecté la ndax day xam ne mi ngi jëflante ak koo xamante ni ku yeewu la te loolu la yonent bi alayhi salatu salaam def bi nga xamante ne itam dem nañ ba toog foofu mu timit wëlbati situation bi ci gaawantu njëkkante yabal ay nitam ngir ñu dem waxi ji maanaam bu wax jotee waxal yow yaa nekk ci dëgg ñii liñ nekk du dëgg ñi ngi lay commencé di la tuumaal di def ay propagande dajale nañ arab yépp dajale leen màkka gëmloo leen ne da nga ñëw pour dal ci kaw néegu yàlla bi ba ñu mer nañ ba ñu ngay takk gaawantul nga dem wax leen ne leen loolu du dëgg mu yebal ay nitam ne leen dem den ngeen leeral na lii du dëgg ñoo ñu dem wax loolu yamuñ ci am ñu jóge màkka ñëw lijjanti loolu ndax nu mu demee mu leeralaat leen mbir mi ñoo ñu delluwaat encore ci loolu la situation bi changé ñoo ñu mujj obligé dañu obligé amuñ ci woon pexe ne dañuy léegi daal di def négociation négociation yi tamit gis nga ko biñ ci duggee provocation yi ci am bi nga xamante ne Urwat ibn Mas'ud ñëw na di jàpp sikkimam ba te saa bu ko defee Mughirat ibn Shu'ba dóor loxo bi ak yooyu ci am yépp waaye yooyu du dara ndax léeg-léeg foog nga nangu loolu pour mën a am li nga bëgg moo tax Aïcha radiyallahu anha nee na yonente bi alayhi salaam maa kaana yantaqimu li nafsihi kenn mënu ko woon merloo ci boppam merloo boo koy provoqué ci boppam mënoo koo merloo mënoo koo merloo ci li nga ko mën a merloowee mooy lislaam mais pas ci boppam sallallahu alayhi wa sallam moo tax kooku li mu ko doon def yonente bi alayhi salaam loolu déstabilisé wu ko malgré kilifa la mi ngi ànd ak ay nit yu ko fonk respecté ko nit ñëw di wax ak moom di laal sikkimam waaye ba léegi neewu ko sax bàyyil li ngay def waxu ko dara Mughira moo wax ak moom léeg-léeg dal gu mel noonu boo ko amee ki lay provoqué moom day mujj moom ci boppam déstabilisé wu moo la bëggoon déstabilisé moom mooy mujj déstabilisé wu te loolu la yonente bi alayhi salaatu wa def ba yàlla def Suhayl ibn Amr ñëw te kenn ku ci nekk ku ñëw xam na naka lay jëflanteeg yow ndax ku ñëw rek xam na la xam na ban genre nit nga mu jàng la ba yàlla def ñu signé accord boobu accord boobu mu respecté ko musuta wuutal li nga xam ne moom la waxoon ak ñoom alayhi salaatu salaam ba ci sax saxaaba yi nga xam ne ñoo dawe woon Màkka ñëw Madina ngir mu làq leen ngir mu fat leen li situation bi métti métti daf ne leen nañ dellu ngir sàmmonteeg li nga xamante ni moom la signante woon ak ñoom ba yàlla def ñooñu dal ci kaw xuzaa ñoog banu bakr ci loolu lañ ñëwee daal di koy wax muy amr ibn salim bi ma wax léegi alxuzaa yi ñëw sàkku ci moom dimbal ci dem dimbali ji ñooñu la yonente bi alayhi salaam delloo màkka daal di koy tijji nga gisaat tamit jëflante bi yonente bi alayhi salaam di jëflante ak saxaaba yi ci liñ koy fonk fonk fonk di ko respecté te loolu bokk na ci li nga xamante ni jaaxal na ñi fa ñëwoon ba dellu di ko wax ñi nga xamante ne bi ñoom lañ am na ci koo xam ni sax euh, ci yaakaar na xulays la xulays xulays moom moo ñëwoon bi mu ñëwee gis euh, ni nga xamante ne bi noonu la jullit yi nekkee ak yonente bi alayhi salaatu salaam mbir mi da ko jaaxal ba bi mu demee bi mu commencé di wax gars dañ ne ko toogal nga noppi yow dof nga boo xam ne xamoo dara waaw loolu lañ ko wax ne ko ñun jaaxlewuñu ci yow sa waxi dof yi ngay wax li ñu jaaxal mooy lan moo tax ñu fekk dof bu mel na yow ñu koy yabal maanaam dañu mujj frustré wu ci lan ci li mu gis ñëw di leen ko nettali mënuñu ko supporter ndax dañu am li ñu tuddee taathur bil mawqi mooy dañuy dem la gis jeexital ci ñoom ba dañuy ñëw mel ne kuy propagandal jullit ñi ak yonente bi alayhi salatu wasalaam wax jooju ñuy wax ci wax ju rafet day naqari yéefari màkka yi ba dañuy mujj mer am frustration ci kan ci kañ yebaloon mujj gi ñu mujj di dal ci kawam naan ko noppil xamuloo looy wax yow ñun waruñ la woon sax yebal ñun jaax laa naajub mink innama naajub min anfusina lima arsalnaaka ñun jaaxle wuñ ci yow dañuy jaaxle suñu bopp lan moo tax ñu fekk ku mel na yow ñu koy yebal loolu moo ñu jaaxal ñun ñoo def erreur di la yebal yow fekk ne waa ji deful dara réalité bu mu gis la leen di wax mais li mu leen di wax moo leen neexul te loolu yépp yonente bi alayhi salatu wasalam moo ko def muy wane ne loolu du ñàkk sincérité du wanewu du ngistal du ñàkk dëggu mais stratégie la ci ne sa noonu léeg-léeg wan ko sa bopp da ciy baax wan sa noon sa sa bopp daf ciy baax léeg-léeg noon bi fi nga xamante ni bi fa nga ko mën a jaar da nga ko fay jaar noon bu nekk ak considération am na noonu boo xamante ni bi affaire ay ngànnaay la gëm ak affaire kàttan ak doole bu ñëwee nga génneel ko commando yi wan ko ko mu gis leen gis seen paraat ne wuu ñii moom ku leen laal yàqu am na noon boo xamante ni moom xam-xam ak affaire ay borom yi xam-xam ak yooyoo ko yëm bu ñëwee nga indil ko gars yi ñu ñëw def ay exposé dugal ko ci yenn théorème yi expliqué ko yenn yi bu fa jógee ne wuu non yi moom ñi ay crack lañ noon bu nekk ak mbiram am noon boo xam ne ay palais yu rafet ak ay karo yu rafet ay marbre ak ay lampe ak yu kii moo kii bu ñëwee nga dugal ko ci biir pale yi wan ko comme Balqis fi ko Souleymane jaarale ci ay palais la ko dugal wan ko ay marbre muy muy jaaxle bay wak ay yéreem yaakaar ni dafa am ndox bu nekk ñu ne ko lii du ndox de dafa liis rek jarul ngay wax say yére mu ngi ko doon woo ci lislaam muy nakk-nakkal mais bi mu gisee loolu dafa tuub dafa tuub mooy ne kenn ku nekk ak xëy na fi nga koy jaar pour am ko yonent bi alayhi salaam noonu la jëflanteeg ñoom bi mu seenee ñenn ci ñoom ñuy ñëw daf ne saxaaba yi dem leen ngeen indi gàtt yi ñu war a rey ci ci ci xaram bi indi leen ngeen yeew ko nekku fi woon mais daf koo jëli ji indi ko ne saxaaba yi yëkkati leen seen baat na allahu akbar jekk na na jóg na jolli gars yi tàmbali labbayk allahum di commencé di talbiya bi mu ko déggee mu ne man lii duma ko mës a gàllankoor ndax xam na ci kooku bëgg gu mu bëgg lu mel noonu mu jaaree ko foofu loolu yëpp stratégie la boo xamante ni yonente bi alayhi salatu wasalam <coughs> moom la jëfandikoo nga gisaat tamit ba léegi saxaaba yi sàmm gi ñu sàmm yonente bi alayhi salatu wasalaam àgg na ci Muxirat ibnu Shuba taxaw jëm taxaw ci ginnaaw yonente bi alayhi salatu wasalaam ngir kenn bañ koo laal dem ba sikki mam sax ne bu ko Urwa ibnu Mas'ud al-Thaqafi laal bu mu laal sikkimu yonente bi alayhi salatu wasalaam waaye loolu tamit il fallait mu def ko pour ñii ñëw xam ne ci kilifa la ñuy ñëw doo ñëw ci moom rek fekk ko moom copp mu toog nga def ko lu la neex wala wax ko lu la neex mais jullit da ngay jël say matuwaay léeg-léeg koo xamante ne kilifa la duñ ko bàyyi muy dem ci yenn bërëb yi moom kase wala ñu koy bàyyeek ay nit ñoo xam ne wóoluwuñ leen moom ak ñoom kase ñuy toog loolu warul dañ ko war di protéger kilifa la am na ñu ñëw ne dañ koo soxla ñii wóoluwuñ leen ndax xëy na suñuy noon lañ bu ñu ñëwee ne dañ koo soxla nañ ñëw fekk fa ñoo xam ne dañ taxaw xool lu ñuy def ak moom lan la pour buñ ko bëggee lor wala ñu bëgg a jëflante ak moom nee nañ ñu dox seen diggante ak moom loolu la Mughayrat ibn Shu'ba def ci taxawaay boobu nga xamante ne bi def na ko leneen la ci des yëpp tamit xëy na ay euh, jàngat la yoo xamante ni mën nañ ko ci dolli ci ni nga xamante ne bi noonu la mbir mi situation bi mujjee tourné ak jàmm jiñ fa jële ba yonent bi alayhi salaam exploité loolu pour mën a gën a yaatal l'islam ci euh, yaatal boo xamante ni xëy na séntu ko woon ci jamono yi nga xamante ni ci la doon jàppante ak Quraysh mais comme léegi jàppante beeg Quraysh ndax Quraysh ñoom ñoo nekkoon obstacle bi dëgg-dëgg léegi dinañ gën a mën a yaatal l'islam ci anam bu na a yaatu ci loolu la tàmbalee di yabal ay nitam di leen jox ay lettre ñuy dem di ko yóbbul ay buur aka noonu tamit li ma waxoon ci xaswatu mu'ta bi nga xamante ni ci lañ dem bay jàppanteek ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy romain yi mu bokkaat ci tamit ba léegi benn point boo xam ne noté woon naa ko mooy dimbali ko ñu dul ay jullit ndax yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy dem woo na ñoo xam ne duñu ay jullit ne leen pour ñu ñëw ànd ak moom ñu ñu yàlla di ñu naa sa yaqulu laka al muxallafuuna min al arabi shagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana ñoo ñu nga xamante ne bi ñoom la yàlla di wax ci ne bu yonente bi alayhi salatu wasallam delloo madina dinañ ñëw di ut ay lay ak ay ngant ñu bëri si ñoom nekkuñu ay jullit yonente bi alayhi salatu wasallam woo woon leen pour ñu ñëw jàppale ko ci génnam boobu masala la boo xamante ni masala ijtihadiya la muy kañ la jullit ñi di mën a dimbalikoo ak ñoo xamante ni duñ ay jullit ñu dimbalikoo seen doole ngir dëgëralee ko lislaam masala bu xaw a bëri coow la ndax yonente bi alayhi salatu wasallam dafa waxoon ne inna qawmun la nastainu bil mushrik dafa am benn bis mu génn di dem xare am ñu ko topp benn groupe mu laajte ñee ñan la ñu ne ko ñee qawmun min al mushrikin ñee ay yéefar lañ ñen dañu ñëw pour dimbali suñu mu ne inna qawmun la nastainu bil mushrik ñun ay nit lañ yoo xam ne duñ dimbali ko koo xam ni ab mushrik la ku gëmul yàlla la am na ku ñëwoon ne day ànd ci xeex mu ne ko doo xeex li fekk gëmuloo yàlla kooku tuub dugg ci lislaam daal di xare ñu rey ko yonente bi sa salaam ne daxala aljanna walam yasjud lillahi sajdatan waxida kii dugg na aljanna te musta sujjootal yàlla musta sujjootal yàlla te dugg na aljanna dafa tuub xare ñu rey ko ci saa si mu dugg aljanna te musta sujjootal yàlla loolu naka nga koy lëkkaleek taxawaay yu mel nii ba nga xam ne dañuy wax ne day dellu ci situation jullit ñi bu ñu nekkee ci situation boo xam ne dañoo néew doole di jaamaarloog noonu boo xamante ni ci wàllu kattan ak yooyu xëy na ñoo ëpp doole bu imaamu jullit ñi gisee ni am na ci ñi jëggëmul yàlla ñoo xamante ni woolu na leen ba mën a am ak ñoom ay accord de défense yoo xam ne mën nañoo dooleel jullit ñi te lenn luy néewal dooleel islam du ca juddoo bu boobaa loolu mën na nekk kon ijtihaad la boo xam ne imam bi moo koy def mooy ki jiite jullit moo koy def muy nekk ay accord stratégique yoo xam ne lu mën a nekk la yonente bi alayhi salatu wasalam même yahud yi nekkoon madina bu musaana am ay jafe-jafe war a dem ju ko daraan ñëw ci ñoom ne leen nañ koo jàppale ci xeexam yi mu daan xeex waaye yahud yi comme ay warkat lañ saa su nekk dañ koy wor duñ ko nangoo jàppale mais lim li mu bindante woon ak ñoom ba muy ñëw di installé wu Madina mooy bu ñu amee ñu ñuy jaamaar lool yahud yi dañuy ñëw jàppale leen ci loolu loolu tamit beneen point la boo xamante ne bi bu bu jara bàyyi xel la tayib ala kulli xaal yaakaar naa loolu rek laa noté woon Cheikh Mouhamed ci ay point euh, beneen bi mooy yonent bi alayhi salatu salaam euh, supporté bi mu supporté yéefar yi ba ci nit sax di ñëw di di ko ñàkkee kersa loolu wax naa ko yaakaar naa tudd naa lépp kon ala kulli xaal loolu mooy loo xamante ni jë mën naa wax ne jàpp naa ko ci ay point donte xëy na du ñàkk ñeneen ko mel Cheikh Mouhamad wala ñi fi teew bu ñu jàngatee xew-xew boobu mun nañ ko cee jële mais li ciy jële mooy li ñu tuddee fiqul waaqe fiqul waaqe benn point la boo xamante ni borom xam ne dañ koy jàngat muy am dégg-dégg ci xew-xewu jamono xew-xewu àdduna mooy nekk nit koo xam ne da ngay dégg sa jamono dégg dégg masaa'il yi ba pare dégg jamono pour mën a jëfandikoo xam-xam bi nga jàng ci lislaam ba réaliser ci jamono ak xew-xewu jamono yi ay objectifs yoo xam ne ndam lay doon ci lislaam ñaari xam-xam yooyu ibnul qayim da ci wax ci téeram boobu di ilaamul muwaqqiin ci ne ñaari fiq yooyu mooy tax nit ki am fiq dëgg mooy fiq boo xam ne da nga koy am ci nusuus yi ñu tuddee an nusuusu sharia sharia muy texte yi masail yi nga comprendre ko mais compréhension boobu kase du doy pour nga mën a nekk borom xam boo xamante ne xam-xamam mucc na ayib ndax bu dee ni nga war a comprendre problème mu jamono yi ak jamono ji ni mu tëddee dafa des da ngay def njuumte ci ni ngay bëgg a appliquer atte yi da nga koy teg fu dul place am di def ay njuumte di def ay erreur de jugement te erreur de jugement yi li ko indi mooy loolu yaa ngi koy misaal rek ci médecin bi nga xam ne dafa bëgg a faj benn feebar di ko diagnostiquer bu comprendre li nga xamante ni mooy garab yi jàng na ko bi mu nekkee ci faculté bi ñu jàngal ko garab yi naka noonu tamit ñi nga xam ne ñooy jaay garab. dañuy yebal ci moom ay nit yoo xam ne ay délégués médicaux lañ leen di tudde ñu ñëw fekk ko biroom ne ko garab bi lii mooy composant yi lii lay faj ak lii ak lii lii mooy nangam lii mooy nangam mu xam garab yi da koy sax mokkal comprendre na garab yi bu baax mais yow mi nga xamante ne bi yow yaay faju boo ñëwee ci moom diagnostiqué wu la dafa xool a gis ay symptômes ci kaw mu yaakaar ne lii moo la dal te fekk ne loolu dalu la wala diagnostic bi baaxul li mu yaakaar ni looloo la dal loolu dalu la traitement bi mu lay jox donte lu baax la su la yokkul feebar du la faj loolu li muy tekki kon mooy ni mu comprendre garab yi noonu la war a comprendre tamit malade bi nekk ci kanamam te feebar loolu tamit mooy li ñuy dund suñu jamono ji di jamono joo xam ne jamono ju lëndëm la jamono ju bari problème la noonu jullit yi fu ne la ñuy jaar lislaam ngir yàq ko yàq suñuy société yàq lislaam bi ñi nga xamante ne ñoo ci nekk di yëngatu nekk ay niti xam-xam war nañ góorgóorlu ba xam garab yi te mooy teg si masaa'il yi jàng ko jàng xew-xew yu mel nii mais ñu góor góorgóorlu tamit ci yonent bi alayhi salaatu salaam ni mu meloon ci ne ñim doon jaamaar lool ci ay yéefar gënuñu ko woon a dégg gënuñu ko woon a comprendre problème ak xew-xew yi ñu doon dund lim ci xamoon ak gis-gis yim ci amoon ñoom seen bopp amuñu ko woon loolu moo tax pexe muñ mës a teg ngir jéem ko ci piéger mu teggi ko walbati ko waat seen kaw salawaatullahi wa salaamu alayhi ñun itam jullit bu fekkente ni vraiment bëgg nañu jariñu ci nekkin boobu mu nekkoon ak taxawaay yooyu mu amoon mën naa wax ne loolu lañ ci war a jariñu liñ ci war a jariñu mooy nekkaat nit ñu yeewu ci seen jamono ak ci seen mbiru noon ba seen noon du leen nax hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain det bi kay day baax alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin ah, mbokk yi ñuy santaat sunu borom yàlla subhaanahu wa taala ci lim ñu xéwale ci ngoonu tey ji yaakaar naa képp ku teewe jotaay bi kontaan nga képp ku teewe jotaay bi yokku nga mu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala liñ fi jot a dégg yàlla na yàlla def ci barke moom Cheikh Mor mi doon fàttalanteeg ñun yàlla na yàlla subhaanahu wa taala fay ko te barkeel ko naam ñëw bi sax góor góorgóorlu nekk ak ñun lu tollook une heure de temps wala une heure temps et demi euh, effort bu metti la ndaxte fan yi nekkul ku wér lool ñu ngi naan yàlla yàlla yàlla dolli ko ak wér euh, lim fi jot a tudd yaatu na waaye ñetti tomb rekk bokk na ci yi ma gën a yi ma gën a yéem te maa ngi yaakaar ne noonu mu ma yéemee noonu la leen yéemee mooy lu tollook saxaaba yi ak ni ñu bëggee màkka yéen sallallahu alayhi wasallam keroog biñ koy bi muy gàddaay nga xamante ne nekkul lu ko gënal bal luñ ko teg la mu dem ba génn màkka jàkkaarloog yëg ci doj ba jàkkaarloog makk ne ko wallahi innaki la ahabbil biqaa'i ilay maa ngi giñ ci yàlla ne yaa ma gënal bépp bërëb sudul woon génnee giñ ma génnee liñ ma obligé ba ma génn ci kon du ma génn fi des di def sama liggéey ba sunu borom yàlla dogal ci man li muy dogal xoolal ni mu ko bëggee woon te noonu la saxaaba yi bëggee woon màkk léegi bërëb bu mel noonu nga gëj ko ay ati at nga xam ne yow fa nga dëkk mooy sa bërëb yonent bi sallallahu sunu borom yàlla won ko ne euh, dinañu dugg màkka te dinañu umra ah mbokk yi mu dajale saxaaba yi ñu ànd xool leen ñu naka la ñuy nammee bërëb boobu ñu jot a dox lu ëpp ay 400 kilomètres dese tuuti nga xamante ne ku nekk tey mu ngi mel ne ku demoon Europe nekk fa nangami at war a jege si nag ngir war a laama soog sa njaboot nga ñëw ba aéroport ñu ne la doo dugg waaw mbir mi nekk ci ñoom benn choc bu xaw a la leen xaw lu xaw a diis ba Umar ibn al-Khattab sax mbir mi da koo lan da koo xaw a dépassé waaw ah, mbir mi da koo xaw a dépassé mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk yaram baa ngi tàng jër bal sax man nga de xawuta mën a ànd ak sagom ah, laajaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay laaj nee ko alasta nabiyallah eh, yow yonentu yàlla bi ah, ndax du ne yàllaa la yónni mu ne ko balaa ah mu ne ko alasna ala alxaqi wa hum ala albatil ndax du ne ñun ñoo nekk ci dëgg ñoom ñoo nekk ci caaxaan yow salaas ne ko aha kay mu ne ko kon lu tax ñu leen di nangul lii nga xamante ne tey euh, lu lu maanaam lu tax ñu leen di nangul lii maanaam Umar moom gisul woon ne pakk bi ñuy yonent bi sallallahu alayhi dëppoo gaa yi maanaam lu war a mën a nekk la yow salaam ne ko inni rasulullahi wa lastu aasihi wa huwa naasiri yonent bi yàlla la du ma mooy ndigalam te yàlla mooy ku may dimbali umar nee ko awalasta kunta tuhaddisuna anna sa nati l bayta wa natuufu bihi ndax du ne yaa ñu ne woon ne dina nu ñëw dugg màkka daa di wër kaaba gi mu ne ko aha kay balaa maa leen ko waxoon mu ne ko afa axbartuka annaka taatihi l aam yam salaam ndax nee ko ndax maa la ne woon ne ren lay doon mu ne ko déedéet kon mu ne kon la ñu waxoon lépp dara teggeeku ci maa ne woon na di ngeen ñëw di ngeen dugg di ngeen wër kaaba gi andax ah, bi ma koy wax dama ne woon ne ren lay doon Omar ne ko déedéet ne woon ren de mu ne ko yëgal ne dinga dugg ci di nga dugg Màkka te di nga wër kaaba gi loolu nekk benn mawqif boo xamante ne day ndeysaan bu daw yaram la waaw ah, kon gis nga yoon saam noonu mu doxee dëgg-dëgg mooy kilifa gi mat kilifa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ñaareel bi mu bokk ci li yéeféer yi teg mooy keroog ba ñuy bind bind muhammadu rasulullah eh, bismillah rahman gaa yi ne effacé ngeen gis ne yonent bi sallallahu alayhi mu ngi nettali ne soo nekkoon di bind nekk ku aay ci bind di taalif ay téere kon idan lartaabal mubtiluun kon yéeféer dañ ne kii lii muy wax da koo jàngi am na ku koy jàngal muy bind am ay kayit denc moo tax sunu borom yàlla maanaa teggi ci moom la nga xamante ne mooy mbind walla gis mbind loolu nag ak mat la ci moom waaye manqué la ci keneen ak mat la ci moom moo tax ali moo ko won diggante bii la ak bii mu ne fii la taal mu daal di effacé loolu salawaatu rabbi wa salaamu mu bokk ci pakk ya comme ni ko seex Mor junjee yéefari ne ko képp ku jóge Màkka bàyyi sunu diine ñëw ci ñun eh, ñëw ci yow delloo ko bul ko téye mu ne d'accord na ñu ne ko képp ku nekk yow ba mu yàgg bàyyi sa diine mooy bàyyi sa diine yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam daa di dellu si ñun waa Makka ñun ñu téye ko mu ne d'accord na parce que ab jullit du bàyyi diineem di dem te waa Makka yëg nañ ne toujours gaa yi seen gaa yaa ngi tuub di dem léegi ñu bëgg bloquer loolu far mujj képp ku génn fële dem yoo xam ne ah la ma waxoon ak gaa yi mooy da ngay dellu rek gaa yooyu di génn di campé ci diggante ba ba far mujj nekk benn doole mujj lëjal waa Màkka ba waa Màkka woo ko ne ko pakk boobu dimbali ñu rek mu deñ léegi ku ñëw jëlal waaw ah, léegi ku ñëw jëlal kon mbokk yi dëgg-dëgg euh, waxtaan wi am na solo euh, beneen bi bi ci mujj mooy gis nga li yéefar yi wax ñu ne ko bi ñuy yàq deram kii dafa ñëw ngir euh, maanaa ngir indi jafe-jafe ci jaamu gi ñuy jaamu yàlla ci kaaba gi ah kon ndekete yéefar yi xamoon nañu kaaba xamoon nañu jaamu yàlla xamoon nañu yàlla waaw lan mooy seen problème mooy dañ koy bokkaale leneen ah, ñoom xam na nañu ne yàlla ku am la te moo nu sàkk waaye seen jafe-jafe mooy ajaala al alihata ilahan wahida waaw xërëm yi yëpp ñuy jàppandu ngir mën a yegg ci yàlla nga ñëw nga ne loolu lépp nañ ko bàyyi jàpp ci yàlla dong inna hada la shay'un ujab loolu daal vraiment aajo yaa ngi fi mënta faju ak xërëm yu bëri yëpp kaaba gi lu tollook daanaka 300 nangam ak i xërëm a ngi fi nga ñëw benn bis ne ñoo ñëpp nañ leen effacé jàpp ci yàlla dong di ko yaakaar moom dong di ko ñaan moom dong di jëmme ci suñuy aajo ci moom dong euh, yow daal danga ñëw bëgg dolli suñuy problème kon ñoom xamoon nañ ne yàlla ku am la moo tax wala in saaltahum man xalaqa samawati wal ardu soo leen laajee ku sàkk asamaan ak suuf ñu ne la yàlla waaye seen problème moo nekkoon bokkaale yàlla ak leneen tollale yàlla ak yeneen jël yeneen mbir di ko boole sunu borom yàlla kon loolu mooy seen jafe-jafe wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain Imam Hassan nee na may quelques questions incha allah Mm. dama doon xool xam naa noonu xam naa su nekkee loolu gis la moom <coughs> moo war a koy liir waaw ak <coughs> waa ji mu ne sant eh, cheikh bi di ñaan yàlla yàlla yàlla fay ko mu ne maa xukmu tajassus fi xayaatina lijtimaaiya maanaa eh, maanaa liggéey boobee nga xamante ne moom la yoon sallallahu alayhi wasallam digaloon kenn ci saxaaba yi mu dem màkk di xool xibaar yi di leen espionné mu ne ndax loolu dagan na ci sunu eh, ci sunu dund di mu ne limaada laa nastaamilu hadihi alwaqaaia fi xayaatina alsiyaasiya almuaasira mu ne ndax loole lu tax loolee mënuñu koo jëflante mënuñu koo jëfe ci tey li ñuy dundee sunu wàllu dundu politique waaw seen mbokk Abdullahi eh, Konaté wa barakallahu fiik alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala eh, jazallahu cheikh Mouhamed xayran ala talxiisihi li almuxaadara vraiment ni mu waxtaan bi yàlla na ko ci yàlla léegi lu mu laaj ci wàllu euh, espionnage xam nga jëmmi jëf bi ci boppam jëmmi jëf bi boo ko xoolee rek da nga gis ne lu ñu tere la ndax wala tajassasu bi yàlla subhanahu wa taala waxoon wala yaxtab baadukum baadan bi yàlla subhanahu wa taala lëkkalee ay mbir ci suratul xujuraat yaa ayuha alladina amanu ijtanibu kathira min aldanni inna baad aldanni ithm bu lim ci teg mooy wala tajassasu wala yaxtab baadukum baadan ayuhibu ahadukum an yakula laxma axihi maytan mooy yàlla subhanahu wa suñu biir daf ñu tere woon ñuy di def jëfee wala di di amalante ay njort yoo xam ne njort yu ñaaw la ndax njort yu ñaaw yooyu xam na lim mën a yàqu suñuy diggante jullit dafa war a set xol set dënn ci digganteem ak ay mbokki jullitam waaye loolu tekkiwul na jullit du am njort bu ñaaw fa mu ko war a am ndax boo génnoon say noon di la fexeel njort lu ñaaw loolu ngay njort ci ñoom di bañ ñu faagaagal la ndax xam nga noon boobu xam ay pexeem bañ di nga koy bañ wóolu ci di am ci moom njort lu ñaaw loolu yàlla terew la ko bu waxee tamit sa tajassasu mooy foo xamante ni lu baax rek lañ fay xaar waroo faa nekk di seetlu ak a séntu loo xamante ni lu safaanoo la waroo koo def loo xamante ni xëy na lu lay bett lay doon mais yow waroo nekk ne yaa koy jéem a xool moo tax yonente bi alayhi salatu wasalam tere woon nit ki bu fekkee dafa tukki buy ñëw ci njabootam bu mu leen bett ñëw rek teel rek guddi mu ñëw mel na kuy jéem a loolu bu mu ko def doon na tere tamit nit di toog ay nit di wax mu leen di déglu di leen bàyyi xel loolu doon na ko tere kon bu fekkee dafa nekk lu mal placé suñu biir day yàq ndax ay nit yuy wax wax joo xamante ni concerné wu la nga leen di déglu loolu baaxul am suñu ñu ko tuddee taxassus ndax bi moom la waxoon ci xijjatul widaa ne woon wala tajassasu wala taxassasu taxassus mooy nit ñi wax ngay toog di leen déglu fekk ne li ñuy wax concerné wu la wala ngay ñëw di jéem a xam seen i mbir di ko lujjatu te fekk ne loolu concerné wu la loolu dañ koo tere moo tax lim laaj ne alxayaatul ijtimaaiya mais loo xam ne vie sociale la dañ ko cee tere mais bu ñu waxee nag ci wàllu stratégie ci diggante jullit ñi noon bi diggante kaawu dëgg ak kaawu caaxaan ñu lay fexeel di la jéem a lor di la jéem a faagaagal di jéem a yàq sa daawa ñu mel noonu foog nga leen di bàyyi xel ndax boo leen bàyyiwul xel bu ñu dal sa kaw dañu lay bett te bu ñu la bettee dañ lay jekku moo tax kon foog nga leen di bàyyi xel même bu ko laajee des fois infiltration boobu day am yonente bi alayhi salaam daf ko doon def ci ay jataay yu bari boo gisee même keroog ghazwatul ahzab bi gars yi ñëwee campé dafa yebal kenn saxaaba yi mu dem infiltré wu leen déglu leen pour xam ci lu ñu nekk loolu noonu mënut a ñàkk ci yenn saa yi mais na nekk selon li nga xamante ne bi mooy maslahawu jullit ñi waa nit ki di tëb tëb nii rek di ko defal boppam ndax mën na am yeneen i conséquences mais mu nekk loo xamante ni kii yor kàddu jullit ñi di seen kilifa moo moo koy décider ba pare bu ñu koy def dañ koy def par rapport ak enjeu yu mel noonu. leneen lu mu ci teg mooy yi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee nii lan moo tax duñ ko jëfee ci suñu dund lii yëpp day wane rek ñaari mbir mooy ñun jullit ñi sori bu ñu soree compréhension bu ñu war a am suñu diine ci ne ni ko war a xamee xamee ko noonu. beneen ba ci des tamit mooy li ñu war a jariñoo ci lislaam ci ni ñu war a former ak ni ñu war forge ñun jullit def ñu ay nit yu xam diine xam yàlla xam àdduna yeewu ba tax suñu noon du ñu not wala bu ñu not tamit du nekk ci anam bu bu yomb comme ni mu nekkee ci jamono loolu yépp ñun ñun ni ñu war a mel lañ melul rek ni ñu war a jariñoo ci lislaam pour lislaam defar ñu loolu moo des moo tax yonente bi alayhi salaam doon wax ne ida tabayaatum bil ayna wa axadtum adnaab albaqar wa raditum bi der wa taraktum aljihad sallat allahu alaykum dullan laa yarfacuhu wala laa yanzicuhu ankum xata tarjicu ila diinikum wala xata turaajicu diinakum yonente bi alayhi salatu wasallam wax ci xadis bi nekk ci sunan ne bu ngeen bàyyee seen diine topp àdduna ni ngeen war a taxawoo lislaam defee woo leen ko noonu yàlla dina teg ci seen kaw ak suufe goo xam ne du ko teggi li fekk dellu woo leen ci lislaam dellu ci lislaam nag yakunu taalluman wa amalan dafay nekk ci jàng ko ak jëfe ko ndax lislaam rek moo mën a yëkkati jullit moo tax omar ibn alxataab waxoon ne naxnu qawmun aazana allahu bil islaam mahma btaxayna al izzata bi gayrihi adallana allah ñun nit lañ yoo xam ne yàlla daf ñoo teralee lislaam leneen lu ñu uti ji teraanga feneen fu dul lislaam rek yàlla def ci ñun ak suufe yàlla nañ yàlla defal teraanga boobu defal ko jullit ñëpp yàlla delloo siwaat jullit ñi ci lislaam ñu xam ko dëgg-dëgg te di ko jëfe bu ñu delloo fa fa fa ña njëkk ñu nekkoon rek yàlla tamit wanaat ñu li nga xamante ni mooy ay doxalinam ak mëneefam subhaanahu wa yàlla ñu ko yàlla defal hada wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin xalaas wala voilà kon ñu def ko dernière bi ah laaj yi moom loo wax ci naafila di jour yi demee su ma ko tontu su léegi waxtaan wi kii bi si njëkk incha allah samedi bii di ñëw al euh, oustaz Diadji Darame am na waxtaan bu fi def même heure ci al ixlaas as-sidq wal amaana mooy dëggu ak euh, ak al amaana loolu ci incha allah waaw 14 heures et demi incha allah comme mu ko yëgal mbokk yi euh, beneen bi ci topp mooy maa ngi doon waxtaan ak maam Xasan léegi ci benn mbokk mu def taxawaay bu ama am solo dañu wax ne ne yàlla mu ngi fii dimbali jaam bi fi ak jaam baa ngi ci yittee dimbali mbokkam mu indaale soxla it beneen mbokkam boo xamante ne dafa am ay jafe-jafe jafe yi war na toll ci lu eh, jege ñaar fukki junni moo tax ñu ne mbokk yi ñëw dañ leen ko yëgal lu ci waaye am man ñu dajale ko daal koy jox ñu sol gilet yi eh, ñu dajale ko suñu mbokk moomu suñ ko dajalee su ko maam asal joteel incha allah ci ki mu jëm ki ko jot kon incha allah Cheikh Mor eh, tontal ñu laaj su ko defee ñu daal di yëkkati lu tax alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala yal na yàlla doole defal ñu tawfiq euh, bu dee naafila yi xëy na loolu moom bokkul woon ci bokkul woon ci waxtaan bi mais comme question d'actualité la ndax ak weeru koor gi li ñuy tuddee naafila naka jekk mooy julli rek julli boo xam ne du julli farata ci ñuy julli mais comme li ñu tuddee al aada muhakkama loolu règle fiq la mooy ne nit ñu nekk ak seen aada ci seen wax ñun ci suñu wax wàllu terminologie bu ñu waxee naafila weeru koor rek mooy naafila ñi naafila ci guddi gi pourtant ñaar rakk yi ngay julli léegi ci jàkka ji sax naafila la mais naafila moom loolu lañ ciy jublu léegi naafila yi tamit muy tarawih yi ñuy def ci guddi gi eh, nekkul loo xamante ni dañ koo defal ay app defal ko ay rakka yoo xam dañ naan guddi gi julli rakka yi boo ko jullee jullee ko saar yi ak yu mel noonu wàllu dog yooyu ñi ci def noonu wérul ci sunna ci njàngale yonente bi alayhi salatu jëmmi jëf bi ci moom lañ ko jële ndax moo ko jàngale moo ko daan def ci jamonoom saxaaba yi roy ko ci mu law ba ak si ñun ni ñu ko royee ci jëf bi nañ ko royee noonu tamit ci jëfin bi li jàppande ci nit ki mu jàng ko ci alquran julli li yàlla jàppandal ci moom mu julli ko bu paree tëj ko ak witr witr mooy lu lu lu tóol loo xamante ne lu impair la mu tëjee ko julleem loolu nekk la bu muy julli ci guddi gi bu ko jullee ci tàmbali guddi gi lu baax la bu ko jullee ci xaaju guddi gi wala njeexitalu guddi gi moo gën comme ni ko Omar ibn al-Khattab waxee woon ni'matil bidaati haadihi wallati yanaamuuna anha afdal li annahum kaanu yusalluuna awwala al-layl saxaaba yi bi Omar ibn al-Khattab dajalee leen ñu dekkalaat sunna bu fi yonente bi alayhi salatu wasallam daan def ci naafila guddi ndax daf ko defoon ci xadiisu Aïcha bi nekk ci saxiix muslim daf ko defoon ay nit topp ko ca mu jiite leen ginnaaw bi mu bàyyi ko ngir ragal yàlla faratal ko bu ñu ba ci jamono Omar Omar ibn Khattab dekkalaat sunna boobu bi mu rombee nit ñi ñuy julli daf ne li ñuy def lu baax la waaye julli gi nga xam ni dañ koy nelaw heure bi ñuy nelaw moo gën heure bi ñuy nelaw mooy bu ñu demee ba guddi gi xaaj ñu soog a julli nee na heure boobu moo gën bu fekkente ni nit ki nag dafay ñëw ci jàkka ji ànd ak imaam bi ba léegi lu baax la man salla maa al imaami xatta yansarif kutibat lahu salaatu leyl wala qiyaamu leyl bu fekkente ne nit dafa ñëw ànd ak imaam bi ba imaam bi julli ba jeexal mu dem ñibbi këram même bu tëddee nelaw yàlla dina ko bindal yoolu comme ko xam ne dafa julli ko digg yëpp kon lu lenn lu nekk ci loolu mën na ko def li ñuy ñaan mooy yàlla nañ yàlla nangul ñu jéem a fexe rek ba li ñuy def ñu tënku ci ci ni ko yonent bi alayhi salaam doon jàngalee nit ñi moom bàyyiwuñu dara ci lislaam ci njàngaleem lislaam yi lu dinañ ci dugal seen loxo ci ay dog ay defeel nii ak bu nekk nga dégg ñu toog naan dañuy joxe tey naafila yi ñu war a def ñàngami rakka la saar sàngam duñ la wax mukk mukk mukk mukk fan la ko yonent yàlla bi jàngale jamais jamais te ñun mooy suñu royuwaay ci moom la ñuy jëlee ñu ñuy jaamoo suñu borom yàlla nañ yàlla dool defal tawfiq ñu ngi leen di tamit delloowaat euh, ziyaare ci weeru koor gi di ñaan yàlla mu nangul ñu nangul leen bu leen ñu fàtte ci seeni ñaan wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullah ni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gëna mëna mën jëm ci kanam ngir mu gëna mëna jëm ci kanam ngir mu gëna mëna mën jëm ci kanam membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum senegaal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union. dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci